première fois le mairie de Dakar y a une radio. C'est très bien. RMD 95.5 émettant depuis le building communal de Dakar. C'est très bien.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

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المحدوب عليهم ولا دالين بسم الله بسم الله الذي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع حليم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 alhamdulilahi rabbil alamin ñaanu nan yàlla toog ak yéen jotaay seen émission Wadduha borom bi may nu ko tey di mercredi di 11 janvier 2017 fa tabarakallah noonu la ñu koy ñaanee tàmbaleeg bismillahi rahmaani rahim yàlla kàttan nu ba àggal ak alhamdulilahi rabbil alamin kaxaadati xii nanu adoo di koy def rek dana ñaan fépp foo xam ne kàddu àgg na fa nu jàng fatiha jàng la jàppandi si xul wallahu ahad gannaaw ba nu ko defalee xaddiya sallallahu alayhi wa sallam nu def ko xaddiya bépp néewu jullit boo xam ne ma nga bar sàq di ñaan yàlla beesal yërmande sa ñoom ñaan yàlla beesal njëggal sa ñoom ñaan yàlla it leeral seen gannaaw mu mel ni ki émission tey bi li ni wax ala dawme ndax yàlla si dogalam nu ngi njëkkanoo def émission Wadduha si rajo municipal de Dakar émission ba nu njëkkanoo def nu ngi ko le 13 janvier 2016 ba tey fa la di 11 janvier 2017 mu mel ni ki at boo xam ne bii émission Wadduha mi ngi jàll fii si rajo municipal de Dakar. te man lam yaskuru naas la yaskuru laax ku santul doomu aadama rek doo sant borom bi mooy tax dañuy tàmbaleek sant borom kër gi kilifa gi di monsieur Coulibaly fa tabarakallah defe naa fukki weer ak ñaar du ñaari fan te ni ma yàlla boole woon ak moom kollëre si Siwal FM 98 point 0 bi yàlla defee nu dénkoon ko rajo ba man maay jëmm jëf njëkk a def émission loolu kóllëre la si sàmm kóllëre googu fa tabarakallah bi mu demee ba am ay responsabilité fii yàlla def ma bokk si ñi mu woo ngir nu mottali sunu kóllëre kon fa tabarakallah monsieur Coulibaly ñu ngi lay ñaanal di ñaanal rajo bi di rajo municipal de Dakar di ñaanal ñi fi yëngatu ñëpp yàlla yokk fi xéewal yàlla yokk fi teraanga yàlla yokk fi sutura fa tabarakallah fukki weer ak ñaar yoo xam ne bii du benn yoon boo xam ne bii wax na ma wax nga loo warul la wax wala wax na ma defeel nii wala defeel na lay lu dul toujours lépp loo xam ne bii luy yokk Wadduha la rek mag nu say xelal te loolu yéene la te fa tabarak laa nit bu la yéenee rek amuloo fayam la nga man rek mooy di koy ñaanal di koy ñaanal muy mucc di yokk kon rajo municipal de Dakar eh, si sama tur turu soppe Wadduha yëpp nu ngi leen di ndokkeel nu ngi leen di ñaanal yàlla yokk xéewal fii si kër gi fa tabarakallah di nuyu bu baax sunu technicien bi nga xam ne moom lañuy jàkkaarlool di Malick Sidibé di koy santit fa tabarakallah ba bu jot amul ba émission amul dina dafay itte ba nit ñi mën a am lu wettali ko te loolu lépp fa it itte la itte la yéene la it kon nuy koy ñaanal moom it yàlla yokk ko fa tabarakala di ndokkeel auditeur auditrice soppe yi fépp foo xam ne bi émission Wadduha àgg na fa wala nu ngi bëggee émission Wadduha nu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal mu mel ni ki génn nan at muy 2016 soo ne at nag da nga wax ne 52 semaines la wala 53 da nga wax ne 365 jours la da nga wax 12 mois la mu mel ni ki bëri na na bés bu nekk lu sa xew moo xam xéewal la moo xam safaan kon day jaadu jaam su la yàlla may nga dund at ba mu jeex yenn saa ngay xisaab sa si lan laa def si yiw nga dogg ñaan yàlla ne yàlla naa ko yokk xisaab sa la nga def si safaan it nga muslu si seytaane jéggalu si borom bi ñaan yàlla yàlla na la yàlla tàggale ak loolu mu mel ni ma ko waxee fukki weer ak ñaar lu bari lu bari xew na fi fa tabarakallah dinaa di wax ne jafe na lool nga xëy ba jant soo te déggoo kon ne bàyyikoon ko na fi nu ngi koy jébbal boroomam te du néewi pexe walla tooñ moo ko yóbbu borom bi rek la sob fa laa yenn saa ngay dégg borom bi ñuy wax ndogalam teg jaam lu diis a diis a diis yàlla musal kon loolu ku ko yàllay may rek looy sant rek war nga koy yokk nuy ñaan at mii nga xam ne moom la ñu dugg muy 2017 mu doon at boo xam ne atu jàmm lay doon yàlla yokk jàmm si réew mi di Sénégal fa tabarakallah atu sutura ñaan yàlla yokk fi sutura ñaan yàlla mu doon atu foto fa la ñaan yàlla xéewal yi yokk lool ñaan yàlla it muy atu wér ndax dinañ di wax na xéewali àddina la sa gën wala bokk na sa la jiitu muy wér ndax lu nit di def rek fa tabaraka la euh, wér moo koy gunge sa loolu kon nu ngi ñaan yàlla woyofal yaram yi moo xam tawatu lu mu doon fa tabaraka la rawatina nag tawatu poos muy tawatu jamono te muy feebar bu xam ne defe na xaw na yaatu ndax dina di wax ne pos bu wayef ya dana yomb lool dana yomb lool muy ku ko yàlla nattoo ngay absenté dana yomb ngay jahaso dana yomb it ngay am stress te yooyu bu dajaloo rek fa tabarakala danay néew yaram bañ a diis kon nu ngi ñaan yàlla suturaay añ reer ndekki suturaay tëdd ak sangu yalla nañu ko yalla yombalal si at mi di 2017 fa tabarak la di ñaan tamit aajo yépp lépp luy aajo jullit te muy lu yàlla gërëm moo xam soxna si nga xam ne itteem yépp mooy dama bëgg borom kër dama koy wax di koy wax lu bëree bëri ne xéewalu jigéen la sa jiitu man jàpp naa ne mooy ma am sëriñ bu baax kon nu ngi ñaan képp ku si tollu yàlla tànnal la nga am sëriñ bu baax fa tabarak la man see jaamu yàlla su dee góor goo xam ne day ut soxna it yàlla jàppandalal ko ko fa tabarakallah ba mu mën a jenc ndax samp kër la wax ne bala nuy wax nit ne samp na kër mooy am na soxna kon tegtal la si ne fa tabarakallah yor soxna euh, lu mënula ñàkk la si góor ñi nga xam ne bii dañuy sàkku ak lu nuy man di sàkku moo xam élève yiy jàng tey fay ut diplôme ni def formation te di fay sàkku ëllëg fa tabarakalaa nu am embossement lépp loo fépp foo xam ne nit a nga fa di sàkku lu mu suturloo di sàkk loo xam daf koy dundam fa tabarakalaa yàlla jàppandalal ko lépp di ñaan yàlla at bii di 2017 <coughs> doon at boo xam yàlla gën see for xol ndax xol yi su jagee rek fa tabarakallah lépp lépp lépp lépp dana jag eh, dina di wax ne la gën si doomu aadama wala lay conduire doomu aadama lépp <coughs> mooy xol ni ko sunu sëriñ ba waxee yàlla na yàlla taas nu si barkeem Mawlana Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh mu ne ka waxoon surgaam ba ne ko bu subaa na nga fees xar bi te nga indil ma la sa gën a baax nee na daf ko fees indil ko xol ëllëg sa mu santaat ko comme loolu waaye ne ko indil ma si la sa gën a yées mu feesaat ko indil ko xol mu ne ko lu tax xol démb xol tey mu ne ko waaw ndax xol mooy jàkk rek lépp jàkk waaye xol mooy safaan wi lépp safaanu kon yal yàlla fóot xol yi ba nga xam ne ma mawadda dinay yokk yàlla raxas ci xol yi triste raxas ci wuruj raxas ci wor raxas ci fa tabarak la kañaan surtout la gën a yàq jamono mooy loolu nan di nangu dogal képp ku yàlla jox cër ñépp nangul ko cëram jàppale ko gunge ko ba fa ko yàlla yemale kenn bañ a xeeb sa cër ndax dinaa koy wax ne këjël première yàlla def la nga jël vingtième soo ko kiñaanee sa soo ko iñaanee première am boobu ana ana ka jël walla euh, wala kon kooku nan la war a def mooy tax fu nit tollu rek am na ku mu tene kon di xool toujours sa ñala tene mën nay jur safaan mooy tax fu nit tollu rek nay sant te ñaan dollent jàmm bu muy jombale boppam lenn waaye lu ko yàlla jox na jël te yàlla yokkal ko yéene képp ku yàlla jox cër mu yéene ko képp ku yàlla jox garaat mu yéene ko ku yàlla jox fonction noonu ànd bu am tamit moo xam ne loola neex borom bi fa tabaraka la moo doon at boo xam ne bi daal xol yi daf si defaru yàlla raxas xol yi génn si safaan yooyu yëpp yëpp fa tabaraka la di ñaan yàlla it muy atu salaam comme ni ma ko waxee woon musiba yu bari te di faral di amit yàlla daqal na ko yàlla dàqal nu ayu ndox yàlla dàqal nu ayu safara yàlla dàqal nu ayu ngelaw fa tabarakallah loolu daal nu ngi koy ñaan borom bi nga xam ne mooy jëlla jëlaluhu di faxalu li ma yurit at mi nga xam ne mooy 2017 fa tabarakallah muy atu xéewal ak naataange si réew mi di Sénégal nanu àdda de day ubbee tamit di ñaanal bu baax tey siyaara tey sàkku ñaanu suñuy kilifay diine yàgg naa koy wax ne fa tabarakallah nooy garanté réew mi ndax al ulama warasatul anbiya nu ngi leen di ñaanal bu baax di sàkku seen ñaan di ñaan yàlla yokk guddal seen fan di ñaan yàlla yokk wéral seeni cër fépp foo xam ne kuy jottale mission sallallahu alayhi wa sallam ma nga fa nu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal fa tabarakallah di ñaanal suñuy njiitu réew ndax fa tabarakallah sun seen jàmm mooy suñuy jàmm ñoom ñëpp lépp lu nu yéene si réew mii di senegal yàlla kàttanal leen ba nu mën koy matal képp koo xam ne yor nga fonction lu mu mën a doon rek yàlla kàttanal la ba macha allah ba la nga sa yéene si xéewal nga mën koy matal di siyaara njabootu Wadduha njabootu Wadduha eh, fa tabarakalaa du siy jiital sunu mag di sunu wëllëre di sunu xarit di alxaaji xaadim rasul Guèye <coughs> nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal di koy ndokkeel ndax fa tabarakalaa xam nañ ñun fa mënu féete eh, kon alxaaji xaadim eh, si sama kàddu njabootu Wadduha yëpp ñu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal di nuyu bu baax tey siyaara eh, ñi nga xam ne bii ñoom la yàlla def nu nuy jàppale si liggéey bi sa daara ja di géejawaay sunu mag nuy koy nuyu di koy siyaara di ko ñaanal nga xam ne moom lañ fi wettali konte tey sax ak sëñ Modou Fall muy sëñ Babacar Cissé nuy koy ñaanal fa tabarakallah yàlla yokk ko wér yàlla yokkal koy xéwal di koy sant bu baax fa la di nuyu Omar Diallo di koy nuyu di koy ñaanal ki noonu di nuyu Malick Sock di nuyu bu baax tamit fa tabarakallah Xaadim Njaay di nuyu tamit àll Gajaga eh, nga xam ne fa tabarakallah sunu rakk la yaayam jox nu ko waaye di nuyu bu baax tey ñaanal Cheikh Ahmed tiijaan Serif Gajaga di ñaan yàlla yokkal koy xewal njaboot njabootu Wadduha bu na ko tuddee xel yi day dem si Mouhamadou Mountakha Mouhamadou Lamine Mountakha Ba daf tabaarakallaa si njaboot gi la bokk moom it nu ngi koy ñaanal si at bu bees bi lépp loo xam ne yéene na ko si si procès ki xéwal yàlla kattanal ko ba mu mën koy matal fa tabaarakallaa di nuyu bu baax tey siyaara alxaji Fallou Cissé nga xam ne moo nu defal spot boobu di nuy gunge. moom it ñu ngi koy nuyu di koy siyaara di ñaan yàlla yokkal koy xewal alxaaji Baara Diouf ni ngeen dégg noonu si xasida Muhammad Rasulullah nga xam ne dañoo wëlërante ak moom depuis 2011 ba léegi nee naa fu ma defee émission Wadduha rek seen Baara Diouf moomu moo nuy gunge loolu lépp di dellu si kollëre ndax dinaa koy wax ne émission Wadduha maa ngi ko njëkk a def depuis 2011 bi ma njëkkee def émission amoon problème mu générique bi ma demee kër ga am xasida bii nga xam ne moo ni gunge fekk dama ko daan wettali ko lu bëree bëri bëri eh, ma war a delluwaat ma ne bii daal naa ko jël mu may wettali dafa tabaarakallaa si xasida la bu am solo eh, sëñ Baara Diouf si barke Mahamad Rasulullah boobu ngay tàgg nu ngi lay siyaara di lay ñaanalit eh, yàlla yokkal lay xéwal fa tabarakalaat di siyaare ñi nga xam ne noonuy jàppale si pharmacie Wadduha yi eh, ndax Wadduha eh, géej waaye buntu lycée Seydina Limaamu Laay ñu bëri xam nañ ne mooy dëkkuwaayu Mara sise waaye léegi da nga dégg nu ne soo wàccee si buntu se ba da nga jàkkaarloog boutique Wadduha fa tabarakalaah loolu di eh, nu say sant yàlla nga xam ne mu ngi tàmbali woon si 2016 bi depuis avril 2016 nu ngi si sant di nuyu yaayu Mahamad mi nga xam ne moo fa nekk di nuyu Wadduha ñi nga xam ne noonu nekkal point di leen siyaara bu baax di leen ñaanalit sunu yaay Adja Fatou Ndiaye di koy jaale it magam boobu nga xam ne moo wàccoon liggéey dimanche bi jàll di rawul Ndiaye di ñaan yàlla yan na yeewoo aljana fa tabaraka laa di nuyu alxaaji Alfuseynu Saña di leen ñaanal yàlla yokkale ne xéwal di leen masaw lu bari si coonaay téléphone yeeg coonaay tegtal jaamu yàlla ya fay dem eh, di leen si masawu di nuyu Wadduha Tëngéej sunu jigéen Adja Aram Ndiaye bu association Wadduha fa tabarakalaa nu ngi ñaan yàlla loolu nga xam ne moom la sos muy association Wadduha te mu lépp di si 2016 bi balay 2007 di jeex moo àgg foo xam ne dina kawe sa njort di ko koy ñaanal di koy ñaanal membre yi yëpp fa tabarka ndax lenn dafa gënul ki la wax nan ànd nan ànd juboo nan ànd nekk benn nan ànd di demlanteeg dikkalante nan ànd yéenante jàmm nan ànd di dimbalante si yiw loolu lu ko gën neex dafa amul fa tabarka moo tax ñoom ñëpp dama leen di wax ne xaj na man ngeen def seen kilifa waaye man seen surgalaa seen surgalaa si damay bëgg ku si nekk rek lépp luy itteem nu jaamu si yàlla sunu kem kàttan ndax lenn dafa ëpp nit ñi mooy am nit ñi li benn waxkat waxoon ne fu nu la doon tànnaloo fukki nit ak fukki dërëm nee na boo dee boroom xel jëlal fukki nit ña ndax ne fukki dërëm mën nay jeex waaye boo amee nit ñi fa tabarak la dootoo ñàkk fukki dërëm kon Adja Aram Ndiaye ak membre association Wadduha yëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di leen ndokkeel si at bi nga xam ne mooy 2017 fa tabarakallah di nuyut Mouhamed Diop nga xam ne moom it mu ngi ni jàppale bu baax si liggéey bi te nekk Tëngéej di sunu goro fa tabarakallah nuyu koy nuyu di koy ñaanal yàlla yokk ko wér di ñaan tamit yàlla yokkal ko ay xéewal di nuyut sunu jigéen soxna Kumba ma dem ñaa nekk ba Sali Carrefour moom it nga xam ne fa tabaarakallaa ñiy dëkkee côté yooyu yëpp tey am lu ñuy soxla moom lañ koy booleel mu am sa itte lool it ndeysaan am sa yéene lool it fa tabaarakallaa du may fàtte mukk ba muy def conférence nga xam ne dañu ko dara jaale loon ne ni waa Ndakaaru di tuddee Wadduha laa bëgg fii si Mbuur nu koy tuddee Wadduha itteem mbokon na si ndem ba ne dama bëgg weer wu nek nga tànnaloon ma fan yo hamu da ngay nekk fii si mbuur ngir ñëpp lolo ne tey Mara Cissé mu ngi mbuur loolu itte la la kon fa tabarakala nu ngi koy ñaanal yàlla yokkal koy xéewal yàlla barkelal koy di nuyu bu baax sunu jigéen bi nga xam ne nekkal Massar di jannu jàppale it si bi di soxna jaara mbocc nu ngi koy nuyu di koy siyaara di koy ñaanal yàlla yokkal ko ay ñaan yàlla it barkeelal ko ay njabootam di nuyu fépp foo xam ne soppe wala re xarit ma nga fa nu ngi lay nuyu di lay siir siyaara di lay jox sa cër di lay wàcc sa wàccuwaay fàttewunu yaayu wadduxaa yaayu wadduxaa soxna sëy nu ngi lay siyaara bu baax di ñaanal yàlla yokk la wér di ñaan yàlla yokk guddal fan yi ñaan tamit yàlla yokk barkeel njaboot gi fa tabaarakala seen émission Wadduha tey émission ndokkalante la nax ay semaine yu baree ngi ni defuñu woon émission direct te daanan aada weer bu nekk émission ba sa jiitu mu am loo xam ne dañ koy wëllërante ak yéen tey jii si kàttanu yàlla nu fas yéene ko fas yéene ñaar fukki appel yee njëkk a dugg si kàttanu yàlla bu nu yàlla dimbale dina am lu wëllërante ak ñoom la wëllërante ak ñoom nag sunu nu wooyee. wax nu la nga xam ne moom lañ gën a noo ittewoo te amaana yombul woon nu seet nañ lay gën a jàppande sa ñoom nu man koo wëllërante ndax tabarakallah ak wëllërante rek lay doon sama diggante ak yéen ndax eh, yëg nañ bu baax cofeel geeg yëg geeg jàpp geeg ñaan yi lépp yëg nañ ko taxee bu nu si leen it mu mel ni ki tey dañ fee wettali konteeg ñaari wëllëre nu fas yéene noo gunge si émission bi ki si jiitu muy sëñ Babacar Cissé di sunu mag fa tabarakalaa doon koo xam ne bii fa tabarakalaa def na si ñun lu bëri moom lañ fi fas yéene wettali kontel wettali konte fiit ak sunu wëllëre boo xam ne bii wëllëre la bu yàgg wëllëre la depuis 2003 nga xam ne booba gan laa woon fii si dakaar ba léegi si fa tabarakalaa sunu kóllëre yàlla di koy nu koy suuxatal ñu ñaan yàlla gën koo dëgëral yàlla yokk ko fa tabarakalaa muy xam muy Modou Fall moom fa tabarakalaa moom lan fas yéene wëllëranteel moom lan fa yéene wettali konte tey la ko waral tamit lépp day dellu ma doon wax rek muy kollëre ndax ki nga xam ne bi macha allah la nga xam ne moom la yàlla def muy fonction sa lay yëngatoo di si daan dooleem su demee ba ubbi place xelam daj ne place bii kat dama koy wëllëranteeg Mara Cissé tuddee ko Wadduha loolu du lu ndaw loolu nag fa tabarakalaa mbégte la lool si ñun moo tax tey nu fas yéene ko indi si émission bi nga émission Wadduha présenté ko auditeurs rek auditrices yeeg soppe yi ngir képp koo xam ne bii am na itte bu méngoog la muy yëngatu te mooy lay defar mbiru xew xam naa dana ko gën a détaillé moo xam album nga bëgg moo xam film nga bëgg lu mu si mën a doon rek si kattanu yàlla eh, comme léppam daf ko wëllëranteeg Wadduha nu bëgg wëllëre Wadduha yëpp wëllërante ak Modou Fall loolu it bokk na si li tax tey nu indi ko eh, mu wettali nu si seen émission Wadduha xam naa su ma jox su ma leen joxee nu nuyoo ba pare rek eh, danañ mën a wettali konti ak yéen si yoon bi nga xam ne bii moom ngeen daan jaar si 33. 821 14 85 moo xam ku bëgg bokk si ñaar fukk ñooñu nga xam ne dafa am lu nu wëllëranteel wala ku bëgg am lu nu fàttali konte nu bu fi nekkee nu fàttali konte ko wala ku bëgg am lu yokk lu mu yokk si émission bii di Wadduha su ko defee nu mën noonu la seen émission euh, di nekkee tey incha allah kon damay bàyyi sëñ Babacar mu nuyoo su pare nu jox sëñ Modou Fall. bu ko defee nu ngeen mën na topp si 33 821 14 85 kon sëñ Babacar bisimilah. jërëjëf sëriñ Mara jox na auzu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق والخاتم لما سبق النازل الحق بالحق والعادي إلى زراتك المستقيم وعلى آله أخي قدري ومقدر العظيم دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sëriñ Mara ñoo ngi jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo nga tàmbaleel ñu ko ci directeur bi ba ki ci gën a ndawee ci kër gi. Mm-hmm. di ñaan yàlla yokk kër gi. amiin di nuyu itam ñi nga xam ne moom lañu bokkal daara ji. Mm-hmm. muy sëriñ Omar jàlloo mm-hmm. ak Malick Sock. di nuyu itam ki nga xam ne moo ñu nekkal ca daara ja di ndey daara ji ñu koy wax Badiane Ndiaye. di ko jaajëfal ci taxawaayam bu rafet. ak yaatalam. ñoo ngi ñaan yàlla yokk ko ci fa mu bëgg a yàlla yokk eggale ko foofu mm-hmm. di nuyu itam ki nga xam ne moo ñu nekkal ci bitigu Wadduha muy soxna Saarata mm-hmm. ak maman ñoo ngi leen di ndokkeel di leen siyaara di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. di nuyu mboolem kuy diglu Wadduha rek ku nekk soppee Wadduha rek ñoo ngi lay jox nuyoo bi di la jox sa wàccuwaay ci barke Seydina Muhammad waaw Serigne Mara daal loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne yal na yàlla fay jërëjëf rafet na sëñ Modou Fall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 ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax neen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ñaan yàlla mi nga xam ni mooy borom dogal di borom kàttan yàlla na yàlla yokk xéewal gi dolli sutura si yàlla na yàlla yokk xéewal gi dolli sutura si yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def te boole ñu bi loolu wee ñu ngi nuyu sunu kilifa sunu xarit sunu kóllëre mi ngi toog di sëriñ Mara siise mm-hmm. du nuyu tamit magam ji ñu jàkkaarloo di mm-hmm. sëriñ Cheikh Cissé mm-hmm. Babacar Babacar du nuyu tamit sunu technicien bi ñu jàkkaarloo Malick Sidibé di leen wax ni leen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah di nuyu tamit bépp auditeur wala bépp auditrice boo xamante ni ci waxtu wi yaa ngi déglu rajo municipal RND fi ci Dakar. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, di la wax ni ñun kat sunu teewaay fii tey. Mm-hmm. mën nañu wax ni lépp lépp lépp ci kilifa gu baax gii la. ci kilifa gu baax gii la. ubi. mu ko waxee léegi ci bi ubbi. defe naa ni sunu lere man ak mom yag na lol wax deug yalla wallahi wallahi waye nak tofu ci dara tofu ci dara tofu ci dara mhm. ñu leen di wax dal ni leen mhm. insha allah rabbi ci kartanu yalla mhm. lepp lo xamanteni ci dal monon nañ ko def ci mom dinañ ñaan yalla ci kartanam yalla doole ñu bën gën man amin amin amin fépp koo xamante ni si yaa ngi déglu jamono ji ñu toll rajo municipal. Mhm. ñu ngi lay tàll sunu loxo tamit di la yéene jàmm. Mhm. ak salaam. wallaay te di la wax foo mën a toll tamit ñu lay wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa kon su ko defee Mara. Mhm. kàddu yooyu la ñu nuyoo daal ba si kanam. Eh, rafet na macha allah nuyoo bi jotal na. Eh, bu nu doon laaj kan mooy Modou Fall lan nga may mën a tontu de. waaw Modou mhm. benn jaam bu ndaw la rek. Mhm. dëkk Géejawaay lycée Limaamu Laay. Mhm. di yënguti ci lu ñuy wax. reporter photo caméra. am na Limaamu Laay nag. tëlib Gonaas mm-hmm. foofu la suñu dëkkuwaay nekke mm-hmm. Mm-hmm. bañ ci dalee liggéey léegi tamit wax dëgg yàlla mën nañoo wax ni daanaka ñoo ngi ci fukki at ak juróom masha ñoo ngi ci sant yàlla bu baax na ñoo ngi ci sant yàlla bu baax ndax wax dëgg yàlla xam nañ ci ku ne xam nañ ci ku ne yóbbu nañu tamit fu ne boobu moo waral sax suñ jotaayu tey bii nii. Mhm, mhm. lan mooy relation beeg Mara ba nga ubbi studio tuddee ko Wadduha. Euh, suñ relation ak Mara Cissé. Mhm. Mara Cissé ñi nga xamante 2003. booba su ma juumul ci lay soog a ñëw Ndakaaru. wallaay dëgg la dëgg la. <laughs> booba fi mu nekk nii ci daara ji bi masaan a am ku ko soxla mm-hmm. day jógal boppam dem jëli ko garndul ko boppam andil ko wallaahi la mm-hmm, mm-hmm. muy 2003 wallaahi wallaahi wallaahi ba mu ñëwee li may liggéey tamit mu am lu ci bëgg daa di laaj xale yi ci koñ bi nan laay def ba am ko fii mu nekk nii ci daara ji am ku ko booleeg man ñu naan ko sàmba Thiam daal di may woo ma ñëw bi ma wooyee ma ñëwit mu daal ma am na ku la soxla ci biir yéegal ci kaw nga fekk ko fi mhm. bi ma yéegee ñëw nuyoog moom ak si fekk ko mi ngi teg saagam sax ubbeeku ko mhm, mhm. mu daal may wax li mu bëgg ma def ca la ma ca man wallaay wallaay wallaay lépp rafet tamit ba ma ci defee la ma ca man tamit ba nëgëni wax dëgg yàlla boobu ba nëgëni lépp loo xamante ni si soxla na ko ci li may def boobu ba nëga mhm. day yëkkati téléphone am rek woo ma ni ma nangam ak nangam laa bëgg mhm, mhm. ma jéem ca na ma ko na ma ko mane ak na ma ko bëggee rafet loolu macha wax dëgg yàlla muy nit koo xamante ni si ku baax la ku sàmm kóllëre la ndax su ma ko waxee yéen auditeurs yi déglu defe naa da ngeen ko war a gëm ndax 2003 ak léegi ba 2017 defe naa du ñetti fan wallaay wallaay defe naa du ñetti fan. Mm-hmm, mm-hmm. te boobu ba nëgë ni lu mu soxla cérémonie bu mu am. Mm-hmm. da yëkkati appareil am woo ma ni ma Modou Mboum ma ne waaw mu ne ma bisimilah. yëf yaa ngi noonu si sa loxo. ma jéem ca la ma ca man muy nit ku baaxit nag. di ko yaatu tamit wax dëgg yàlla. di ko yaatal tamit nag. di ko am kóllëre tamit nag wax dëgg yàlla. ndax ay xaritam ak mbokkam yépp wax dëgg yàlla présenté na ma ak ñoom wane la na ma ak ñoom lii may wax nii firnde la ci ndax bu fekkonte ne loolu amul tey lii nii du mën a am ma di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne ku sàmm nga sàmm yàlla na ko yàlla sàmm te sàmmal ko njabootam yàlla mi nga xam ne tamit ku mu aar nga yàlla na ko yàlla aaral ko boppam aaral ko njabootam kóllëre nag suñ boroom moo wax ni moo koy fayal boppam mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, ndax dañi lu muy laaj la ëllëg wax dëgg yàlla moom ku ko sàmm la ku sàmm kóllëre la loolu moo tax bi ma demee ba nga xamante ni si ubbi naa palaas ñu naan ko studio ma toog xalaat daal man ni studio bi daal waruma ko war a jox benn benn benn benn tur te tuuru Wadduha nekk fi. ah ma dem ba ci moom. waxtaan ci ak moom. bi ma ci waxtaanee ak moom it wax dëgg yàlla mu daal di koy rafetlu lool kontaan ci lool tamit nag. kontaan ci lool nag wax dëgg yàlla. daal ni ma waa loolu moom wax dëgg yàlla lu may kontaan lool la. te lu ma bëgg tamit la. ma ne ko waaw man de dama ne woon naa ñëw rek ma laaj la ba xam boo ma joxee weneen tur it ma jël. wallaay nga ko waxee waaw boo ma joxee weneen tur mu ne ah ma ne ko ma jël. Mm-hmm. waaye daal dama ne woon daal place bi daal wax dëgg yàlla naa ñëw ba ci yow tur woo ma jox rek. Mm-hmm. ma tuddee ko ko. Mm-hmm. mun ma Wadduha jooju moom lay tudd. ñu tuddee ko studio Wadduha. studio Wadduha bi tamit soriwul wax dëgg yàlla daara ji ndax booy dugg ci kër gi boo gisee sa côté ndeyjoor mhm. di ñu seen ci suufu étage bi mhm, mhm. booy génn it boo xoolee sa côté càmmooñ di nga ñu seen ci suufu étage bi wax dëgg yàlla muy ku yombaleel lépp nag yombalal nañu lépp wax dëgg yàlla jëfee loolu ñu dara ni ñu yombaleel lépp nag yàlla na ko yàlla yombaleel noonu léppi ak léppi njabootam bépp auditeur tamit boo xamante ni si yaa ngi déglu ci jamono ji ñu toll ñu ngi lay ñaan foo mën a toll nga dolli ñu ko ñaan. Mm-hmm. jërëjëf waaw foo mën a toll nga dolli ñu ko ñaan. Mm-hmm. Mm-hmm. foo mën a toll rek nga dolli ñu ko ñaan. jërëjëf jërëjëf boobu. waaw. yal na yàlla te yàlla barkeel. amiin yaa rabbal la ma boobu yàlla. def barke Duha. amiin eh, fa yàlla def. amiin <coughs> ndax lu rëy la it fa tabaarakalaa si ñun. kóllëre gi macha allah ba nu ko sàmmit rafetal nga ko mm-hmm. <laughs> rafetal nga ko ndax yàlla si kàttanam ñu bëri léegi dan bu nu xamul tur bi sax dan naan ma ndax kooku mooy Wadduha mm-hmm. kon tegtal la si ne am nan sa cër donte du ne noo ko moom mm-hmm. waaye am nan sa cër fa tabarakallah kon na ngi ñaan yàlla def fa barke bala mhm. sa fa yoxti karab bu ko fatarda loolooy sababu tey ma ne dinaa la présenté soppe yëpp ngir ku si amati itte bu mel noonu rek mhm. si kattanu yàlla bala émission bee jeex da fi bàyyi sa contact ngir nu gën a suuxat ñu ñëpp barab boobu ba yàlla yokk fa barke ndax eh, fa tabarakallah lu rëy la si ñun mhm. sëñ Modou Fall kon xam naa euh, sëñ Malick mën nga am loonu yëkkatil comme tey dafa war a am cadeau yu nu joxe bu loolu da wàccee rek ku jaar si yoon bi nu mën koy jël euh, nga yëkkatil nu fàllu si se bu daanelee rek danañ commencé jël mbokk yi nga xam ne nooy jaar si 33 821 14 85. waaye kooku mooy Seydina naan ko Muntaxa ñi naan ko Mujtaba ñi naan ko Mustafa ñii naan ko saaliw ñii naan ko abdoulahi abdul majid abdul samad sayduna muhammad yaa bëri tur yaa bëri may aminata mooy yaayam abdala mooy baayam sayduna muhammad abdul mutalibay maamam makka leen ko génne nan ko dagay jabaraan dagaanar nu bay cosaan di gëm leneen lu dul xërëm waaye nun ñi day ñoo lànk kooka mooy muhammadu rasulullah rasulullah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

di leen ndokkeel si at mu la koy delloo lu bëri Habib Mbaye. premier auditeur sëriñ Babacar ak sëriñ Modou moom. premier auditeur 2017. wallaay alhamdulilah rabbil <laughs> yal na yàlla barkel. <laughs> dama tëdd rek déggal sa baat wallaay noonu laa jógee daw. wallaay wallaay Mbaye Mbaye nu mu lay ndokkeel lu bëri yow it. <laughs> maa ngi lay ñaanal fu ma toll. jërëjëf jërëjëf sëñ Habib. maa ngi lay ñaanal fu ma toll di kontaan si yow. jërëjëf wax dëgg yàlla saa su ne man sama xel mu sew. wallaay xam nañ ko xam nañ ko Mbaye. wax rek laay dëggal. wallaay wallaay. ma ne ku ku am kóllëre nga. jërëjëf jërëjëf Mbaye. yàlla ku am kóllëre nga ku baax nga. jërëjëf sëñ Habib ma ne kenn gënu leen. te ku ñuy te ku ñuy xirtal si diine nga siise. wallaay wallaay Mbaye Mbaye. man loolu rek laa a jàppee loolu rek laa la jàppee. jërëjëf jërëjëf sëñ Habib. kontaan bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf tey jii kontaan naa si bu baax a baax. jërëjëf sëñ Habib yal na yàlla barkeel. waaw di nuyu tamit sëñ Babacar moom. wallaay sëñ Babacar Cissé. Uh-huh. <laughs> allo sëñ Babacar. waaw naam ñoo ngi lay ziar. waaw jërëjëf ñu ngi ñu ngi delloo ziar. kontaan nañ bu baax ci woote bi. alhamdulilah ah man de yaay seede rek laay def ci sa rakka jooju. <laughs> dëgg allah loo wax rek. am nga am nga am nga rakka ju baax. wallaahi macha allah. am nga. xam nga ko am kóllëre. jërëjëf jërëjëf. Mhm. kuy kuy ku nangoo xiirtal nit si lu baax. dëgg la dëgg la waaye yéen jàpp rek. wallaay ñun ñun lañ ko toppee moo tax lu mu joxoñ rek. yéen a yéen a ko jàpp rek. wallaay dinañ mën nu si dinañ jéem. wallaay ndeysaan wallaay leen. suñu yéene si Baye Mara na waaye yàllaa dogalagul rek mais. wallaay wallaay lépp mën na lépp mën na kay. dëgg la mbay <laughs> jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax. sama xol moo sama xol moo. dëgg la dëgg la macha allah rafet na rafet na <laughs> rafet yenn yàlla barkel mm-hmm. yenn yàlla barkel ko mm-hmm. sëñ Habib Mbaye yi mm-hmm. nga xam ne di ko wax premier auditeur eh, yàlla dafit gis nga macha allah moo njëkk dugg si émission bi yal na yàlla yokk ko barke yàlla yokk koy xewal yàlla yokk ko sàmm bismillah 33 821 14 85 bismillah allo sëñ Mara Cissé waaleykum salaam wa rahmatullah yaaram ñu ngi leen di siyaare yal nangu tabarkel man la benn ndongo la bu tudd Ndiaye Touré maa ngi lay doo a woo fii laa tudd sama laa rek jàpp rajo bi dégg la déglu naa la nag bu tey ak yoon. Eh, wallaay Touré. waaye nag wax dëgg yàlla ni ngay dégg ngay wax dafa maa neex lool. jërëjëf jërëjëf ture ah ma leen di siyaar bu baax di sàkku ngeen ñaanal ñu ndax ay ndaw lañu. wallaay wallaay yal na yàlla def nag eh, te yàlla yokk. bu yàlla dogalee daal ñu mën saa ñëw dinañ fa ñëw a ndax. baax na incha allah sëñ Baye ba ba bind naa sa tur comme loolu ma wax si kàttu yàlla. ma ngoog da danaa faral di jaar foofu taximan la fan yii dama liggéeyul waaye bu ma yàlla joxee oto incha allah dinaa fa ñëw. kàttan yal na ko yàlla yombal tabarkel ko. امين امين انت بخير بحنا التري تري جري خم خم بنين تري فات امين امين امين امين ما شاء الله يلا يلا دبل لب دو خيول ني السنغال بيب ني بوك امين امين يا امين تري انت بخير جري جف جري جف بارك الله بارك الله سيغ باي تري 33 821 14 85 moy yone bi seigne malik ba meku yeglu bismillah salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah sëriñ bi eh, Cissé soxna Diarra bu Kër Massar. waaw soxna Diarra bu Kër Massar. Eh, ñu ngi lay siyaara di lay ndokkeel si at bu bees bi. la koy delloo Cissé. Eh, jërëjëf Mbodj. ñun dañu naan dañuy sant yàlla rek. Mm-hmm. la in sakkatum la azidannakum ndax nee na yàlla boo daal mu dolli la <laughs> ndax comme daaw mhm. yàlla defoon na bi ñu amiin bokk kooku waa Wadduha yëpp nag. wallaay wallaay mboj mboj mboj ci daraja Seydina jërëjëf nu ngi la koy delloo lu bari di lay ndokkeel di lay masawu coono it coono yi woote 23 heures yeeg 2 heures du matin yi eh, di ñaan yàlla may leen barke Duha. amiin Cissé defal ko seen i sonn ci yow rek. ñun dañ koy xeex. wallaay mbooj mbooj dañ lay ñaaral gudd fan gu ànd ak wér. amiin ah, day macha allah képp kuy laam-laamee sa xam-xam daal. Mm-hmm. laa xamul yàllaa tax ñuy wax. jërëjëf jërëjëf Mbodj. kon nag dañ lay ñokk ñaanal ñaan ñuy tibbee suñu xol. wallaay jërëjëf Mbodj. di ziar nag sama jooju noonu sëñ Babacar. Babacar Cissé waaw di la ñaanal Cissé. fan bu ànd ak yër. jërëjëf jërëjëf nga ànd jooju bokk ko. jërëjëf sëñ Modou Modou Fall. Mm. di ziar Modou Fall. xaay eh, eh, boobu eh. moom naa mburu dañ koy indil ak. waaye la ko bàyyee. <laughs> boobu noonu ñu la koy ñaanal ci daraja Seydina Muhammad ci barke Duha. wallaay ndeysaan wallaay yàlla nañ dajeeg lu kawe sa ñaanal. waa Wadduha yëpp. wallaay wallaay jërëjëf. di ziar waa kër ga. ñoom ndeysaan allah. wallaay wallaay wallaay bu la yàlla may wér gu. jërë ñaanal la kenn <laughs> di ñaanal euh, kële xale yooyu <laughs> macha allah waay waay dama naan leen yéen daal yàlla bàyyi kër yi wallaay wallaay wallaay mbëgg yal cër tàkk ñaanal macha allah wallaay wallaay ñaanal nag ñu yokk ñaanal gudd fan yokk jërëjëf nga fàttali waale ne yaa nekk Kër Massar waaw ñun ñoo nekkee Kër Massar. ñu ne ko yaa yor frotté yeeg cuuraay yeeg yeneen waaw macha yenn saa nag yenn tukulóor yi. man man yaay alpulaar la. la. <laughs> moo tax dama pare séeréer. waaw dañuy ñëw ndeysaan ñenn ñi dañ lépp ci liggéey bi la lépp ci liggéey bi la. wallaay wallaay maanaam boo jógee ci station Shell bi. Mm-hmm. boo doxee doxee tuuti rek ci rond-point bi. Mhm. avant nga jël ko banque bi da ngay mhm, mhm. doxee tuuti rek di am étage bu gudd boo gis cinq étage soo laajte ko soxna ma am jaaree ñu ne la mu ngi nii. ko noonu itam Malika. yal na yàlla fay. yàlla barkeel macha allah. waaw incha bu baax a <laughs> eh, yi lu ñu def rek ñu lan lay jotee ñi dëkk côté yooyu

17 mhm. 20. Mhm, mhm. boo ci wootee di eh, eh, jërëjëf na jërëjëf. jërëjëf soxna jaara Mbodj bu Kër Massar yal na yàlla yokk ko barkeel si barke Doxa. yàlla defal ko defal ko njabootam. bismillah ki nekk si yoon bi. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa soxna Adja Aram Ndiaye. Cissé bu eh, Tëngéej <laughs> wallaay Cissé Wadduha Tëngéej présidente association Wadduha wallaay Cissé nu ngi lay ndokkale lu bëri di lay ñaanal ñu ngi nuyu di ziar bu baax Cissé jërëjëf Ndiaye Ndiaye la ndokkeel sa at mu bees mi jërëjëf nu ngi la koy delloo Ndiaye yàlla suñu borom bu tedd bi subhanahu taala dolli la wér amin amin Ndiaye ya yàlla suñu borom sàmmal la sàmmal la njëriñ ya amin amin amin Ndiaye ya maxal ñu la fu yàq yeggul barke Seydina Muhammad amin amin amin Ndiaye di ñaanal ñi nga toogal sëñ Babacar ñu ngi koy ñaanal. Babacar Cissé. ñoo ngi la koy delloo lu gën a bari. ñu leen di nuyu bu baax. di ko ñaanal ak Modou Fall. ak Modou Sall wala moy studio Wadduha moy borom studio Wadduha ni <laughs> ngi lay nuyu di la ziar moy Adja Aram moy association deug ah, la deug la mo yow yow mom yaangi ci biir ma sha Allah wallahi wallahi wallahi ñun ko bëgg señ bi bëgg nañ la ndax lu dul mom deug wallahi wallahi moy suñu moy suñu lepp ma sha Allah wallahi deug la deug la bobu ngeen ko legi ko am ko wallahi wallahi Allé moom ak léegi yàgg na mais mu ngi mel ni ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. wallaay dëgg la dëgg la mm-hmm. Ndiaye. te lépp ci kóllëre la. wallaay dëgg la dëgg la mm-hmm. dëgg la. féete ma fu ma samay waajur waroon féete. féete ma tam fu ma samay mag a wallaay wallaay. ma koy ñaanal yàlla suñu borom yàqal ñu ko fi yàq yëpp. amiin amiin amiin Adja. amiin yaa rabbal dama koy ñaanal dama koy xeet. Mm-hmm. jërëjëf te képp ku ko yàlla booleel. sant mm-hmm. sunu borom bu tedd bi subhanahu wa taala dinañ la téye. jërëjëf Ndiaye ndax uh, wax dëgg yàlla moo ñu ubbil buntam moo ñu ubbil yoonam. Mm-hmm, ba ñu ñeme yàlla. dañ koy moom dañuy ñaan yàlla rek li ñu li ñuy rëccu suñu àdduna rek mooy li ñu yàlla yeex a wanaleeg moom te. wallaay wallaay wallaay a xamee moom rek moom la ñuy regretté. association bi yëpp nag di wax ñëpp ngi lay wax déwénati. wallaay ndeysaan wallaay Ndiaye ñaanal yokku te ba yëg te doo ma gis ak biir. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf te amiin amiin Ndiaye bi aussi ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla yóbbu fu gën a kawe suñu. amiin amiin Ndiaye. ndax fu mu nekk nii la yàlla na yokk. ñu ngi demalante ñu ngi ñëwalante. wallaay wallaay mm-hmm. wallaay kenn ku nekk sa daray morom. sa morom. la. te yàlla yàlla na buur <laughs> yow la Cissé yaa ngi ubbi bunte yi wan ñu yoon wallaay wallaay Njaay te képp koo xamante ne ànd naa ak yow rek diine la àndeek yow rek mhm. wallaay yàlla la àndeek yow bëgg Seydina Muhammad sallallahu wallaay wallaay Njaay ndax lépp loo defee sa alxuraan nga ko teg wallaay wallaay wallaay li xale yi di wax rek li li li may xale yi wax naan maan sa sëriñ du moom du maaman wax dëgg yàlla ndax moom léppam yàlla la saa suñu taal ka tey jii am na ku ma woo wallahi azim di wax si yow ba sama yaram di daw wallahi wallahi te benn yoon la la déglu sa émission yaa suñ mu taxaa dëgg la dëgg la mu wax lu rafet si yow mu ne ma man daal si kii bi laa jëlee sa numéro mais yow ki la yàlla booleel mu ne ma nitu yàlla la macha allah wallahi wallahi mu ne ma dinaa fasanteeg moom wëllëre te te bari na si ay morom yoo xamante ne dañ lay dégg xamuñu la te bëgg la te gisuñu la xam wallahi wallahi wallahi te loolu lépp ndimbalu suñu borom la. dëgg la dëgg la dëgg la Ndiaye ak ak waajur yi ñu leen di ñaanal tam yal na yàlla yeesal. amiin amiin amiin Ndiaye amiin yal na leen ku say waajur yar ba nga dox di yare mm-hmm. dëgg yàlla doy na sant yàlla te doy na wallaay Ndiaye parce que tamit euh, ku toogaax yow nee naa ku toogaax yow rek am leçon boo jël si yow mm-hmm. jërëjëf si ak sutura mm-hmm. ndax yow sa lépp sutura la macha allah jërëjëf Ndiaye dëgg yàlla fa tabarikàllaa fa dañ lay jërëjëf jërëjëf Ndiaye fan ak wér ak képp ku la bëgg Mm-hmm. jërëjëf yàlla ko 2007 bi yàlla nekk suñu njublaay. amiin amiin amiin di ñaanal association bi yëpp yëpp yëpp nag. wallaay wallaay bépp membre bu nekk ci biir association bi. wallaay. ñu ngi cotiser seen i cotisation. Mm-hmm. ñëw di jënd sa carte yi. Mm-hmm. vraiment. Mm-hmm. ñun daal allah dina am si kàttanu yàlla. maa ngi waxtaan ak kilifa yi pour macha allah. pour euh, def xew boobu nga xam ne daanañ koy def at bu nekk. maa ngi si waxtaan ak kilifa yi bu nu amee ndigg rek si kàttanu yàlla dinañ si waxtaan. am na wallaay wallaay wallaay. fàttali ñu sa numéro après dinañ jokkoo incha allah. Mm-hmm. waaw 77. Adja mm-hmm. moo nekk Tëngéej. 262. 262. 36 28. 36 28. waaw mooy sama numéro. Eh, eh, pour ñuy bëgg adhérer ci association bi. waaw ñi bëgg a adhéré 262 36 28. ak ñi nga xam ne am na lu itteewoo tamit si pharmacie Wadduha. si pharmacie bi aussi nañu nañ ma woo waaw. waaw ana sama goro Mouhamed Diop. waaw mu yàlla yokkal koy xéwal. juuti bi rek. en face FDE bi rek si biir station Kell bi. wallaay en yal na yàlla yokkal ko xéwal. amiin incha allah. Eh, eh, eh, mhm. waaw. waaw incha allah. wallaay eh. wallaay maa ngi nuyu soxna Seynabou. maa ngi am itte la macha allah. wallaay ku am itte la loolu macha allah loolu itte la. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. loolu itte la wallaay sëñ Abib. maa ngi nuyu ñëpp. Alaaji madame Cissé soxna Mati Diop macha allah moom aussi oo na ma bërka démb <laughs> wallaay wallaay soxna Ulay Ñëng waaw daf ma doon wari carte yi mu jaayoon ndeysaan ndeysaan ndeysaan na ma ko paat paat dëgg la dëgg la jaay waaw soxna Sanu bu Mbour xaw naa ko gëj a dégg. soxna Sanu mu ngi fi nag mu ngi mu ngi. ak euh, soxna Adama Sall. rek waa Adama Sall. aussi wallaay wallaay wallaay. ak Adja Binta Kane aussi Binta Kane. soxna Binta Kane waaw. Mhm. waaw. dëgg la dëgg la dëgg la. moom ku la bëgg la moom. wallaay wallaay. ku bëgg si carte yi rek ku bëgg adhéré rek. ñu mhm. ngi ko si 77. incha allah 72. 36 28 pour ñuy soog a déglu émission bi. waaw mooy numéro Adja Aram bu Tëngéej. Eh, eh, eh, yal na yàlla yokk xéwal. ak barkeeg wér. bég na lool Adja wax dëgg yàlla may ko li nga wax si kolere rek fu ne noo bokk lépp. noo bokk lépp macha man man mënuma la fay. xam nañ bu baax. wallaay wallaay nga bokk ndey ak baay. wallaay wallaay dëgg la dëgg la. bokk naa sa biir famille. wallaay dëgg la dëgg la. dëgg bokk nga sama famille. dëgg la dëgg la te loolu lépp kóllëre moo ko waral. wallaay dëgg la Ndiaye dëgg la dëgg la Ndiaye Ndiaye. maa ngi ziar ñëpp. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. El Hadj Malick. Malick Sidibé nee na mu ngi lay fay. lu bari. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. di ñaanal aussi euh, suñu suñu technicien bi làqu. wallaay fan alxaaji Alioune wallaay alxaaji Alioune yàlla yàlla eh. amin amin amin amin amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf Babacar jërëjëf jërëjëf incha allah jërëjëf Adja Aram allah dinañ jokkoo barakala fiik <laughs> soxna Adja Aram Ndiaye mm. bu Wadduha Tëngéej yal yàlla yokk ko barke yàlla yokk ko xéwal yàlla yokk ko wéer ak bépp jullit fa tabarakallah eh, bismillah ki si yoon bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu seet taalibe ah, maa ngi lay siyaare <laughs> yàlla nangu tabarkel am nga sëriñ bu baax macha allah Mouhamed Niang maa ngi koy siyaare lu bëri imam dëgg la dëgg ñu ngi koy ziare waay. wallaay wallaay jërëjëf. di ñaanal yàlla ci barki at bu bees bi. Mm-hmm. yal yàlla yokk ci barki saa. amiin amiin amiin Adja. ñu ngi ziare tamit fan ngay toog foofu yëpp. wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf jël naa tur nu jokkoo après. waa kay jërëjëf baax na yal yàlla barkeel la. macha allah loolu kolleere la ba tey macha allah depuis ma ko mm. xamee ba léegi. est-ce que man a taalibe Mouhamed ña ngi lay wax te loolu kolleere la. tabaraka laa mi ngi profité di nuyu tey siyaara imaam Mouhamed Ñang di mm-hmm. sunu wëllëre. Eh, bisimilah ki si yoon bi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Mara ñu ngi leen di yàlla nangul nu tabarkeel. Amath Sène parcelle. Eh, sëñ Amath neen def. ñu ngi sant yàlla bu baax a yàlla na yokk. yàlla na yokk amin yàlla alhamdulilah xaw a gëj a dégg rajo bi parce que cent point huit bi man dama ko doon jàpp waaw cent point huit nag depuis si nawet bi ba léegi waxul waaw loolu la kay eh, eh, dama ko eh, jàpp léegi da ngeen da ngeen di am mercredi chaque mercredi incha allah seen émission Wadduha si quatre vingt quinze point cinq dëgg la kay dimanche tamit minuit da ngeen am rediffusion dimanche minuit waaw dimanche minuit ah waay da ngeen ko am mardi si fajar tamit mardi ci fajar tamit ak vendredi deux heures du matin vendredi tamit deuxième. waaw waaw waaw heure yooyu yëpp incha allah mën ngeen fa am seen émission. incha allah rabi incha allah keroog sama lay woo di laaj ba xam ndax émission yi parce que mënatuma ko woon jàpp. waaw xam nga si site bi ba léegi dañ si bind almadina bi xam naa looloo tax. waaw waaw loolu loolu la kay. incha allah di nga koy am sa mercredi fii. nu ngeen def ak coono yi. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. man de maa ngi waaj ñëw bërëb ba rek. wallaay wallaay maa ngi waaj rek parce que man mm-hmm. ma yaakaar rek daanaka bu ci defee sama yaakaar loolu du àndu. wallaay wallaay yàlla baax na si kattanam. loolu daal man doy na waar loolu kii na ma daal jaaxal na ma trop daal. baax na incha allah jël naa tur bi léegi ëllëg nu jokkoo incha allah. dina am lu nu wëllarante incha allah. bu soobee yàlla bu yàlla sëñ Amath Amath Sène waaw. yal na yàlla barkeel. bu subaaree ma woote bonne heure. Eh, bu onze heures passé. bu onze heures passé. bu mhm, soobee yàlla. Mhm, mhm. incha allah rabi baax na baax na. ok jërëjëf na yàlla barkeel ko sëñ Amath Amadou Sène. 33 821 14 85 sëñ Malick bu amee ko na si yoon bi. seen émission Wadouha si rajo municipal de Dakar 95 point 5 bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi naa def. ñu ngi sant alhamdulilah. naka njaboot bi. naka eh? gitu, njaboot bi. ñu ngi sant ngi sant bu baax. naka liggéey ba ñëpp ñu ngi jàmm. alhamdulilah ngi sant bu baax. waaw de. si bi ko Ousmane. Thierno Ousmane baax na jël bi incha allah. baax na Thierno nu jokkowaat si kàttanu yàlla nu jokkoo ëllëg si kàttanu borom bi. yal yàlla barkeel ko Thierno Ousmane. bisimilah ki si yoon bi. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum waaw yaram. Ah, Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh. Ah, Tidiane si Wakaam. Diouf as Diouf waaw waaw Diouf alhamdulilah Diouf Diouf. ak xam nga du benn fan. Ah, dëgg la Diouf Diouf. yàgg nañ la si bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diouf. kontaan nañ bu baax amin amin amin Diouf amin amin amal ñu kóllëre bi nag. amin amin Diouf Diouf. ma sant yow kóllëre rek moo tax ma woote nag. walaay ndeysaan yal na yàlla barkel la. amin yaa rabbi. yal na yàlla barkel la Diouf. tey ñu suñu sëriñ Cheikh. Tidiane Niang. waaw Cheikh Ahmad Tidiane Niang. <laughs> waaw wallaay nu ngi koy siyaare lu bari di siyaare sunu kóllëre sëñ Kalidou Gaye. saa yoo waxee rek tudd ko mag. wallaay ndeysaan sunu magu daara la sunu référence la tamit. <laughs> wallaay wallaay wallaay nu ngi koy siyaare lu bëri di koy ndokkeel. waaj naa foofu lu bëri woon ndaxte temps yële waroon naa fa jël si carab mais ba léegi mënu. xam nga rek xat-xat yi xat-xatu jamono yi. wallaay wallaay dëgg la dëgg la moo tax dëgg la dëgg la dëgg la. yàlla barkeel la. bañ guddal comme ça ñeneen ñu mën a dugg. baax na incha allah Diouf. jërëjëf jërëjëf barkeel fikam jërëjëf yal na yàlla barkeel ko. Hmm. di bu baax kilifa googu comme ni mu ko waxee di Cheikh Ahmed Tidiane Niang. Hmm. di siyaare sëñ Kalidou Gaye di suñu kolëre eh, fa tabarakallah sunu xel di dem si. sëñ kali Ba alasan, dañuy koy nuyu bu baax di nuyu soxna ya soxna Aminata ak soxna setu di nuyu turandoo ba tamit di alxaaji Modou Ba 33 821 14 85 seen émission Wadduha si radio municipal de Dakar 95.5, point ku yeglu ya foofu re incha allah dinañ wettali konte ak moom bismillah ki si yoon bi bismillah waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mara Cissé. sant bi. Camara la man la Mariama. Eh, Camara Camara. Cissé. Camara Camara. ñu ngi lay ziar si bu bees. yal na yàlla nangu tabarkeel Camara. di la ñaanal gudd fat bu ànd ak wér. amiin amiin yal na yàlla boole Camara. di ñaan yàlla ñi nekk foofu tamit yàlla guddal seen fan. amiin amiin amiin yow moom li ngay wax si kóllëre moo tax ñun ñuy sàmm kóllëre. wallaay hmm. ndeysaan yal yàlla sàmmal na ko te ko. Hmm. lépp looy wax kóllëre rek ngay wax. wallaay wallaay dëgg la Camara. mu nekk lu am solo. wallaay wallaay Camara Camara. Hmm. du fàtte démb di ko déglu. jërëjëf jërëjëf Camara. chaque jour ñu déglu. jërëjëf Camara. di la ñaan même ñoom ñi nekk ci suuf di déglu ñoo ëpp ñu si kaw. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. ma loolu moom dëgg la. dëgg la Camara. yàlla na yàlla guddal fa. amiin amiin amiin yokk sutura yal na yàlla barkeel la Camara. waaw amiin jërëjëf barakallah eh, sëñ Malick boo mën a am loonu yëkkatil comme 23 heures jot na.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

wadduha yàlla moo ci giñ yoor yoor la léppay leer alaaji Mamadou Cissé Mara waa góor 33 821 bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah Baye Mara Cissé eh, sant bi ñu ngi jaare waa Diouf Bukar Diouf ah waaw xam nga Moustapha ñoo daaw allo waaw waaw bisimilah sëñ Diouf. ma ne Moussa Ba ñëw gaaw nag. ah dëgg la Diouf yàlla nañ tewee ah, déwén kon. xam <laughs> nga ñaanal ma ma foofu nag bëgg naa ko ñëw fan. incha allah na yomb tabarkel. waaw ah, ñu ngi ziar jërëjëf Diouf nu ngi. jaar si Diouf boobu di nuyu sunu wëlëre yi sant Diouf yëpp. macha allah jërëjëf. <laughs> Diouf jël naa tur bi incha allah. incha allah waaw na yàlla barkel la. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Ousmane Diouf sëñ Thierno Diouf ak Diouf Marse wala réew yooyu yëpp nu ngi leen nii nuyu di leen siyaara sëñ Moustapha Diouf bu xar yàlla moom fa tabaarakalla borom Mouraaki Touba nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal 33 821 85 bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. man la soxna Seynabou Xefe. Eh, soxna waaw Ndiaye yal na yàlla yokk barkel. amiin Ndiaye Ndiaye jërëjëf Ndiaye di la ñaanal rek. ci at bu bees bi di la ziar. jërëjëf jërëjëf Ndiaye di na yàlla nangu te nu jokkoo maa ngi nuyu suñu kilifa boobu toog. sëñ Ba. Babacar Cissé. waaw ñoo ngi lay fay bu baax. Eh, eh, eh. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja Seynabou fa tabarakallah doon ku am kóllëre macha allah ku am itte 33 821 14 85 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa Eh, sant bi yaram. Mouhamadou Lamine Mountakha. ah Mouhamadou Lamine Mountakha. ñun lay ziar di. yal nangu tubarkel jërëjëf Ba. alhamdulilah ñu ngi ziar sëñ Malick euh, Sidibé. mu ngi lay fay sama kaddu. alhamdulilah mboolem personnel rajo RMD quatre vingt quinze mu ngi lay fay sama kaddu. xam xanaa rek bi xamal mbokk mbokk mbokku askan wi. Mm-hmm. Euh, njariñ yu am solo yi nga xamante itam yaa ngi ci taxaw saa su ne itam di ko jox askan wi. wallaay wallaay wallaay. Euh, muy li nga xamante ni li nga xam ne dafa lëndee jamono ji. Mm-hmm. muy jàngoro ji nga xam ne moo di hémorroïde yi nga xam ne ci jamono jii. wallaay wallaay wallaay. yàgg di ci def résultat yu am am solo. Mm-hmm. mu ngi itam disponible na jamono ji ñuy wax ci pharmacie yi. wallaay dëgg la dëgg la. Euh, li nga xam wàllu prostate. wallaay dëgg la li nga xam ne ndoxum tig yi daf leen a daf leen a sonal. dëgg la. Mhm. Euh, loolu nekk na loo xamante ni lu am solo waaye proté bi nga xam ni. Mhm. Euh, kenn mënu koo fàtte. Mhm. itam askan bi itam di ko di ko rafetlu ci ñëpp ñu béy itam di ñëw ñëw ci man di ma ko di ma ko di ma di ma ci di ko rafetlu. wallaay wallaay wallaay te ñu ngi lay ñaanal suñu borom gën a yaatal xam-xam. di yokk ko lool jërëjëf jërëjëf waaye yaakaar naa loolu nga xam ne ci jamono lu demee nii tey loolu ñëw na. ci wàllu bi. wallaay eh, wallaay wàllu pharmacie bi lu demee ni ndoxum ci fii. wallaay wallaay dëgg la dëgg la lu wàllu prostate. maanaam boo am na mboole mi nga xamante ni produit yi nga xam si wàllu seetaan jamono ji taxaw na. yaakaar naa ni eh, askan wi tamit yow néew kattan tamit si néew kattan bi nga nekk na loo xam te lu nekk jamono ji wallaay wallaay la nu si sant yàlla bu baax di si sant kilifa gi si liggéeyandool tamit tabarkalla xam ne macha allah dafa nëbbu léppam ba nee na ma mu ngi noonu daal say loxo. tabarkalla eh, comme noonu nga ko waxee rek. at mu bees la waaye xéewal yu bees la yoo xam ne yu yokk la si boutique bi. am na solo eh, fa tabarakalla te mooy produit yu am solo yoo xam ne dinay dimbale nit. si ñu amee jàngoro yooyu nga wax muy. Mm-hmm. Eh, hémorroïde ndoxu siti ak mm-hmm. yooyu nga wax fa tabarakalla. prostate yooyu yëpp ci biir waaw képp ku jokkoo ak alhamdulilah tabarakallah dinañ la tegtal foo ko mën a amee incha allah. jërëjëf jërëjëf eh, eh, xam na kontaan nag di kontaan lool dinañ ko gën a yaatal suñu amee jotaay incha allah. mel ni tey dama xaw a sore rek waaye sunu xel yëpp. wallaay dëgg la dëgg la ziar <laughs> sunu sëriñ boobu tamit ci plateau bi. Eh, Babacar Cissé Babacar Cissé. waa kay Cissé ak Modou Fall ak Modou Fall. jërëjëf jërëjëf sant nañ bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf Mouhamed Lamine yàlla yàlla barkeel Mouhamadou Lamine Muntaxa Ba moom it fa tabarakallah bokk si njaboot gi nu ngi ñaan yàlla may ko barke Duha fa tabarakallah comme noonu ma ko waxee xam naa balay émission bee jeex danañ ko gën a détaillé si xew yi nga xam ne yokku na si boutique Wadduha waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi Cissé Cissé sant bi yaram Amadou Touré Touré Touré waaw ah, Cissé na ngeen yendoo. nu ngi sant bu baax Touré. mbaa reer nga ba suur. yaa tudd tur bi de. <laughs> ah man dama laa soxla woon sëñ bi si la. maa ngi géejawaay. waaw baax buntu lycée Maam Limaamu Laay. waaw dama eh, bu ma nekkul fii maa ngi foofu si kàttanu eh, yaa ngi rajo nii. yaa ngi rajo ma ne yaa ngi direct si rajo bi nii. waaw waaw dañuy jokkawaat si kàttanu borom bi. waaw ma ne dañuy jokkawaat incha allah. allo. waa sëñ Touré. waaw ngi dégg waaw. yaa ngi ak sama numéro de. waaw. yaa ngi ak sama numéro. waa def yoruma sa numéro de. waaw ah, incha waa defal 77. ah. 77. kaay ba jël bopp 70. 44. 77. 617. 617. 70. 617. 70. 70. 44. 70. 44. 44 44. waaw waaw. Mhm. waaw. baax na Cissé. baax na Touré. waaw kay jërëjëf. yal na yàlla barkeel. Hmm. Yann c'est Barkel, seen Wadoha, c'est la municipal 33 821 14 85 33 821 14 85 y a un jaar pour mën a wettali konte ak c'est seen émission Wadduha tey le fi wettali ko sëñ Babacar Cissé waaye di fi ko Modou Fall. bu studio Wadduha xam naa si kanam tuuti dana def pause suma gën a détaillé liggéeyam bisimilah ki si yoon bi. salaamaaleykum waaleykum salaam wa eh, sant bi. bisimilah. bisimilah yaaram. Mhm, mbokk boobu daf mel dem na. 33 821 14 85. su amee ku yëg lu nu jël ko foofu seen émission Wadduha tey nu fi doon mu doonoon émission ndokkalanteeg eh, ñaanalante si at bu bees bi di 2017 ndax di ma ko waxee woon émission Wadduha ngi commencé woon fii si rajo municipale de Dakar le 13 janvier 2016 yàlla def tey muy 11 janvier 2017 di. at boo xam ne nu ngi def émission bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Mara Cissé. yaram sant bi. Ah, ngoom la Diène ngoom lañ koy wax. Eh, ndong Ndong. Ngom ngoom ah Ngom Ngom yaram Ngom. Diène Ngom na ngeen doon Diène Ngom ah, ah, nga xaw a géej dëggante bi tuuti. wallaay wallaay Ngom Ngom. no no nomoon nañ leen direct. wallaay wallaay Ngom Ngom. wóolante naa ak yéen ak bu baax a baax. jërëjëf Ngom. jërëjëf jërëjëf Ngom. am am na sama benn mbokk bi may dégg ngay tudd foofu eh, te mu sant Ndour te mu dëkk xama caajaay. Eh, sëñ Abdoulaye Ndour la macha allah. Ndour maak moom ñoo dëkk ñoo dëkk. Eh, wallaay ndeysaan ku baax tam am kóllëre. xam naa bu ma jokkoon ak yow nag allah bu nu jokkoo dinaa la ko jox si kàttanu yàlla. <laughs> incha allah sëñ bu Canjaay. Canjaay la waaw Canjaay waaw dëgg la dëgg la. baax na incha allah. baax na Ngom Ngom. jeen Ngom jël naa tur bi. incha allah jël naa tur bi Ngom. baarakala yàlla barkeel jokko bi. waaw amiin si. mu teewee ñun ñëpp déwén si kattanam. ñu ngi ñu ngi nekk côté côté Kër Massar. Eh, dëgg la dëgg la. seen waajoo ji nekk côté Tëngéej kooku nan suñu wala du baax a baax moom duñ fay gëj moom. wallaay ndeysaan wallaay Adja Aram. déedéet kii Mohamed Mohamed Diop. Mohamed Diop wallaay ndeysaan bu baax te am itte. ci moom laa jëlee bagage waaw. wallaay wallaay ndeysaan wallaay. wallaay wallaay wallaay. wallaay ngom ngom ngom. jërëjëf jërëjëf ngom. yal na yàlla barkeel ko Diène Ngom fa tabarakallah 821 14 85 bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah nu ngi sant yaaram alhamdulilah man de dama doon woote ndax ndax ci si site bi bi ngi fi tijji woon wadduha point org waaw mais du ma fay dugg mais léegi dugg ma gis émission yi da nga fay dugg waaye ma gis émission émission yi daal dugg ko Euh, doo fa gis émission yi jàll. waaw alors saa ko gis euh, loolu dinaa ko vérifier bu neex yàlla su ko defee moo jokkoo euh, kilifa gi incha baax na dinañ ko seet si kàttanu yàlla. fàttaliwaat ñu ko. Mm-hmm. mooy xobi pofton baax na incha allah waaw boobu baax na. Mm-hmm. Mm-hmm. baax na incha allah. incha allah. Mm-hmm. ak eh, eh, macha allah am solo. ñu jërëjëf yal na yàlla yokk la yaram. incha allah loolu nga wax dinaa ko vérifier si kàttanu yàlla si leen nga koy xoole si eh, ordinateur wala portable. Hmm? waa portable. nag du du mën a du la mën a jox euh, émission yi. Euh. faaw muy ordinateur. ordinateur ah. waaw waaw bu dee portable mën na la jox euh, bind yi ak image yi mais kii bi. waaw émission yi doo ko mën a am si portable. dëgg la dëgg la waaw boo boo doggaan émission Wadduha émission yëpp danga ko fa mën a am. yan yàlla barkeel. jërëjëf jërëjëf jërëjëf incha allah noté naa yi nga wax balay émission bee jeex dinañ ko fàttali konte incha allah. amin amin jërëjëf. jërëjëf barakallah lu mu wax am na solo si nu fàttali mm, mbir yu am solo yooyu li mu wax tamit si wadduha point org. www point wadduha point org soo fa demee rek lépp lu ma a jaar si mission wadduha yu bari da nga ko fa mën a dégluwaat. da nga fa mën a am tamit lépp loo bëgg xam ay information 33 821 14 85 bisimilah. wa waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kañ yaram. Je gay ci sëñ ah, na mën naa jokkoo bi sëñ Modou. waaw ah, ah, dëgg la may jéggal rediffusion yu bëri yi de. ah ma koy jéggal lu bëri de. wallaay wallaay Gaye Gaye. ñu ngi lay ndokkeel di lay ñaanal. ñaan yal na yàlla na nga ñaan bu baax. amiin amiin Guèye Guèye. nu ngi sant bu baax Guèye. ñu ngi jàmm bu baax alhamdulilah Guèye. di rafetlu émission bu baax macha allah. jërëjëf jërëjëf. Guèye di ziar bu baax di la ñaan la. jërëjëf Guèye. yal na yàlla yokk fan yi. amiin amiin amiin amiin Guèye. yàlla bàyyi la ko ci kanam ak kanam. amiin amiin Guèye. loolu mbooloo mbokk jullit yëpp. jërëjëf Guèye. di ñaan waa association bi yëpp. wallaay Guèye Guèye. ku lim juum nag moom waa baa ngi ziar ñëpp la. wallaay dëgg la dëgg la. Угу. нет, да, нет, Langu Habib boobu ñëpp daal. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. ñëpp daal ñëpp a si jël. wallaay dëgg la dëgg la jaar baax a baax. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou. ma yàlla teral teral na ko. wallaay dëgg la dëgg la. émission yi dama la fan yii dama doon jàpp mënu ma kii loolu moo tax. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Gaye. jërëjëf sëñ Modou Gaye bu Tëngéej macha allah doon ku am itte macha allah ku pëseef ku am colère Eh, fa tabarakallah nañu koy ñaanal ya, si barke doxa yàlla ya, yokk ko fa mm. tabarakallah mm. nu ngi nuyu bu baax babacar eh, simaxa babacar ñaax sëñ simaxa ñoo ñëpp nu ngi leen di nuyu fa 33 821 14 85 bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam mara mo ngi maxtar jaañ alhamdulilah bu baax a baax alhamdulilah yal na yàlla nangu tabarkeel Diagne waaw ñaanal yàlla mu defal la jàmm defal la sutura. amiin amiin Diagne Diagne. li li nga defal si réew mi xamoo sax nu mel. jërëjëf Diagne Diagne. yàlla la. amiin amiin amiin amiin suñu sax damay dem Poyot fa laay jëlee cuuraayu bi di dàq wallaay. waaw séeréer yi wallaay <laughs> euh, wallaay. Ah, ah, ah. <laughs> yal yàlla barkeel baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diagne Diagne. jërëjëf Mara. jërëjëf barakallah Diagne. jërëjëf sëñ Maxtaar. yal na yàlla barkeel. sëñ Maxtaar Diagne. 33 821 14 85.

dëgg la dëgg la Ciss. waaye vraiment sama xol mi ngi seet. jërëjëf Ciss. émission bi nag siiw naa ko mais xaw ma woon ban rajo. wallaay wallaay Ciss. maa koy jiyeeku nii mais vraiment am naa satisfaction sama xol seet jërëjëf jërëjëf. maa ngi lay ñaanal yàlla nag yal na la yàlla gën a jàpp. amiin amiin amiin amiin sëñ Alioune. amiin amiin. kontaan naa ci yow nag. jërëjëf jërëjëf. voix bi moom voix d'or la or. jërëjëf jërëjëf. yal na la yàlla gën a jàpp. amiin amiin amiin. et vraiment maa ngi fàttalante ak yow kóllëre ci téléphone. incha allah yal na yàlla nangul na ko tabarkeel. si kàttanu alayhi wa jërëjëf vraiment sama xol sedd na guy. jërëjëf jërëjëf. maa ngi leen di dégg ci yàlla na leen yàlla gën a jàppale. amiin amiin amiin barakati nabi Mustafa. amiin amiin vraiment sama xol sedd na ci yéen. jërëjëf jërëjëf defalu leen ma dara nag waaye ñii. Mm-hmm. wax ji teeyee. Mm-hmm. Mm-hmm. ak ku déglu rek am ci njëriñ. jërëjëf jërëjëf. waaye nag yàlla na leen yàlla gën a jàppale. amiin amiin amiin barakati nag sama xol nag moo jeex. amiin amiin jërë ngeen jëf jërëjëf barakallah fiik macha allah jërëjëf jërëjëf ci kàttanu yàlla jërëjëf jërëjëf macha allah yàlla barkeel ko sëñ Alioune eh, di koy wax ne émission Wadduha mercredi bu nekk incha allah dina koy mën a am si rajo municipal 95 point 5 eh, fa nu jël ki si yoon bi bismillah waaw sëñ bi na ngeen def si def. Eh, alhamdulilah yaaram. mu leen di wax soxna. na ngi sant alhamdulilah. waaw Serigne Niang. Eh, Serigne Niang. waaw maa ngi Paar Pardois. Oh, Serigne Niang waa jël na bi Niang. waaw damay déglu sa émission chaque jour. jërëjëf yal na yàlla barkeel la. Aliou Ba ba léegi maa ngi lay woo mu ma affaire ba jot na. wallaay incha allah yal na yomb te barkeel de. amiin amiin dama bëgg na daal damay. damay muy yëngu ci wàllu njaay insi njaay dëgg la waaw damay jaay ci ci commerce yal na yàlla barkel ko amin amin xam naa ne su ma yàlla mu bëgg daal fa dañ ko dañ ko ma ci defal ay baax na allah baax na jël nañ tur bi yow fan nga nekk buntu lycée maam li maamu bu ah, soo wàccee rek jàkkaarloo ak boutique wadduha d'accord baax na baax incha allah soo demee si boutique bi dina la wan dëkkuwaay bi waaw am na solo am na solo ah, moo may war naa fi émission ba xam ne lépp macha allah luy jaral njaay la. baax na baax na incha baax na baax na baax na baax na jërëjëf jërëjëf waaw yal na yàlla barkeel mu mel ne kii sunu amaatee ñett rek mën a téyeen di téléphone bi ñu ngeen gën a yaatal tuuti mm-hmm. bismillah bismillah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa eh, sant bi yaaram. Mamadou Ndiaye bu Tëngéej. ah Ndiaye sëñ Mamadou Ndiaye. waaw maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu tabarkel njaay dañ naa dugg nag léeg-léeg li ñu moom am problème waaye ñu ngi dugg. Mamadou Ndiaye bu Tëngéej amul amul leneen loo daan wax xanaa. <laughs> Eh, waaw dama ah. ko jaawale ki doon woote di wax photographe Wadduha. <laughs> ah déedéet ñoo bokk eh, boobu bu bu meer aram Ndiaye. Eh, Mamadou Ndiaye bu Adja aram kon bisimilah. Ah, alhamdulilah la. dëgg la ndeysaan wallaay dëgg la dëgg la. naka nu ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah Ndiaye. Ndiaye li ñu wallaay dëgg la dëgg la kay mu normal rek ma ne comme dugg xaar mu dugg dëgg la dëgg la jël naa euh, tur bi incha allah bu ëllëgee nu jokkoo si kàttanu yàlla jël naa tur bi baax na Ndiaye jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf yal na yàlla barkeel 33 821 mooy yoon bi ngeen jaar seen émission Wadduha bu amee ku ñëw rek sëñ Malick Sidibé nu jël ko suñu jëlaate ñaar nu yaatal tuuti ak sunu mbokk yi nga xam ne moom lañ fi wettali kontel tey 33 821 14 85 mooy yoon bi sëñ Babacar boo te da am loo looy jàllale. waaw sëñ Mara comme lañ doon jàllale rek. Mhm. li nga xam ne bii nit ñi dañ koy xaw a yittewoo muy affaire mhm. borom bopp bi ñu doon jàllale. Eh, ñu jël ko si yoon bi bisimilah. bisimilah. bisimilah. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Uh, man Mamadou Sow laa tudd. Sow sëñ Mamadou. Mm. Mamadou. man damay wax sax am daa ngi déglu sax waa ji naan moom lu ma yaakaar hmm? du am. Hmm, hmm. te uh, lu ma gënt. su xëyee dama koy fàtte. waaw.

tey nu fi wettali konteeg eh, sëñ Babacar Cissé waaye nu fi wettali konteeg Modou Fall bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi balaa ñuy wax. jël ma sa numéro laa ko soxla sa numéro si direct. waaw boo defee 617 70 44. 617. 70 44 boo jiitelee 77. waaw 617 77. waaw. 617. 70. 70. 44. 44. waaw merci. baax na waaw xam naa dinaa jokkoog yow. baax na joxoonu tur bi de. waaw euh, Samba Thiaw. baax na sëñ Samba. waaw Samba Thiaw baax na waa kay yan yàlla barkeel la baax na jërëjëf mu mel ni kii suma juumul am na. 24 20 ah, ñu jël seen tur waa.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 lolu nak di téré bi di karafil mu ngeen ko wéccé ko ci way ci lycée l'imamou lay fofu ki fa nek di ngeen jokkook mom ci 77 617 70 44 77 617 70 44 karafil téere bangini, ngi chance bangini, ngi nii xéwal baa la ci dara la muhammadu rasulullah ñuy fàttaliwaat rek mbokk yi ñi nga xam ne dañ doon yittewoo wàllu borom bopp daan ko laajte euh, ñi ngi koy yore fii ci lycée Limamoulaye képp koo xam ne bi yittewoo na ko rek boo ñu wooyee ci numéro téléphone bi muy 377 358 87 92 boo ñu wooyee dañ jokkoo ak yow ci mbaaxu yàlla incha allahu rabbi yàlla dana def na li nga ci doon sàkku yàlla dina ko saafara waaw ndax. am na solo borom bopp. Mhm. mooy feebaru lan nan lay manifesté woo. waaw borom bopp maanaam ni muy manifesté ci doomu aadama. Mhm. su fi su lay commencé dafay mel ni ay puso yuy jàmm. Mhm. suwaat dana jàpp nit da koy jàpp ba lex yi di new yi wala bët yi new yi. mu mel ni ay sanqaleñ mooy dox ci yaram bi. yenn saa yi dafay dem ba pour nga lekk sax doo ko man mhm, mhm. loolu lépp boroom bopp daf koy def mhm. waaw mais noonu lay manifesté woo di waaw eh, eh, baax na kon ku koy ittewoo rek moom yàlla dénk na la yoon yoo xam ne daf koy safara incha allahu rabbi baax na incha allah eh, ak leneen la doon baaxee mbokk yi waaw leneen li doon baaxee mbokk yi mooy tamit ñi nga xam ne dañuy faral di am tànk yu metti ci mbaaxu yàlla it am na lu ñu ci yàlla baaxe incha allahu rabbi lépp si benn numéro bi rek ku fi ku ci woote rek ci kàttanu yàlla dañ jokk yow. waaw. moo xam it tey xele boo xam ne dafa të doxit ci mbaaxu yàlla. incha allahu rabbi bu ñu jokkee yàlla mun naa def ni da ngay yéex a dox wala a dox waaw. waaw incha allahu rabbi. am na solo. waaw am na solo sëñ Babacar. incha allah. sëñ Modou Fall. borom studio Wadduha. waaw ñun ñuy dolli suñuy kàddu. ma ne ko wëllëre Wadduha bu la soxla woon moom nan ngay liggéeyee. waaw wëllëre Wadduha boo xamante ni si soxla nga ñu rek. Mhm. man ngaa jokkoo ak ñun ci numéro téléphone yi ñu bëgg a joxe nii. Mhm. muy 77. 658. 28. 51. 77. 658. 28. 51. wala nga jël 70. 912. 29. 62. 70. 912. 29. 62. disponible nañ tamit wax dëgg yàlla suur bu nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. bépp suur bu mën a doon rek heure bu nu wut soxla daal. Mm-hmm. incha allahu rabbi boo ñu wooyee ci kàttanu yàlla. dinañ nekk ci say itte insha allahu rabbi mhm, mhm. si si lan ngay yëngatu pour ñi nga xam ne nu ngi koy door a nu ngi dab émission bi. waaye ñi nga xamante ni si ñi ngi doog a taal rajo du doog a dab émission bi. Mhm. ñun ngi yëngatu ci photo ak caméra. ci wàllu reportage daal boo xam ne cérémonie boo mën a am. moo xam jàng la. moo xam ngénte la. moo xam takk la. Mm-hmm. moo xam ciit la moo xam mariage la mm-hmm. Mm-hmm. maanaam bépp cérémonie bu waaye mën a am daal soxla ci lu demee ni caméra wala photo incha allahu rabbi boo ñu contacter ak foo mën a nekk rek ci biir Dakar wala foo mën a nekk ci régions yi. Mm-hmm. ñun disponible nañ pour di la déglu. Mm-hmm, mm-hmm. képp koo xam ne soxla nga ñu daal fépp foo mën a nekk incha allahu rabbi. ci kartanu yàlla bu nu jokkoo rek incha allahu rabbi dinañ ñëw ba fa nga nekk. defal la li nga bëgg ca na ko bëggee ci kartanu yàlla incha allahu rabbi. waaw ci numéro yi ñu joxe. wallaay wallaay looy looy wax kon soppe Wadduha yi. soppe Wadduha yi yëpp tamit maa ngi leen di jaajëfal wax dëgg yàlla. te di leen gërëm te di leen wax ni leen wax dëgg yàlla mm-hmm. yëg nañ yitte gi mm-hmm. yitte ji yëg nañ ko yitte yi mm-hmm. ngeen amal euh, euh, émission bi yëg nañ ko wax dëgg yàlla di leen wax tamit ni leen ñun ñoo ngi nii ñun ak yéen ñoo ko bokk fépp foo xamante ni si dégg nañ fa benn soppe wudduha boo xam ne am na benn itte ci ñun numéro yi ñu joxe bu ci wooyee rek insha allahu rabbi dinañ jëm ci carton yàlla insha allah ba gisee ak moom bépp soppe bi wudduha tamit fu mën a nekk muy góor muy jigéen auditrice wala auditeur fu mën nek? nekk mhm. ah ñong koy tal suñu loxo mhm. di len wax ni len bismillah ñong len di deglu dal. Mhm, wa ñoo len di deglu dal. fop fu ngeen ñu dal daal ñong ngi deglu seen kàddu insha allahu rabbi ci kàttanu yalla bu neexee yàlla bépp soppe duha bu ko déggit bu la neexee nga deggal ko sa morom insha allahu rabbi te xam ne ñun seen seen seen seen seen ak seen mébét mhm. ak seen i bëgg-bëgg mhm. ñun moom lañ ci toogee mhm. lépp nag ñoo ngi ko jëlit teg ko ci kilifa yi nga xamante si moom lañ toogal fii ci kàddoom aussi tamit la ñuy wax ak ci mbaaxam ndax ci mbaaxam wax dëgg yàlla moo waral lii nii tey nit ki la defal lu nekk waaye wax dëgg yàlla kele ne kaay ñu ànd baax koku mënoo koo fay hmm. sunu waajur daanoñu wax nii la hmm. ñetti yi de ku la ko defal buñ la nee dalaa bañ hmm. boo ko gëmee dalaa neex mu ni ku la tudde doom bu dee ci jamono bi ñu nekk mu ni ku la wutalub liggéey fooy xëy di mën a ameb dépasse wala mu tudde la doom wala mu may la soxna nee na ñett yi ku la ko defal ci kaw suuf buñ la waxee ni la diw dalaa bañ nee na boo ko gëmee dalaa neex kon wax dëgg yàlla sëriñ Maaraam yi ñoo ngi ñaan yàlla nañ ko yàlla dolil sutura yàlla nañ ko yàlla dolil sutura àdduna ak sutura àllaaxira yàlla sun borom mi nga xam ne kum sàmm nga sàmm yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla dollee xaar yàlla na yàlla dolli xam-xam bi auditeurs yi li ñu wax nii sànq defe naa ne am na ci loo xam sax dañu koo xamuñu ko wax dëgg yàlla mhm. ñun ñu dëkk ak yow ñun ñoo xam mhm. waaw ah, ñun ñu dëkk yow mm-hmm. ñun ñoo ko xam mm-hmm. ndax euh, yar bi ak xam-xam bi lenn lu ci nekk loo ci am rek boo ñëwee ba ci moom rek dangay ngay commencé waat jàngaat en zéro mm-hmm. yar boo mën a am rek boo nee salaamaaleykum ci moom da ngay commencé waat dalaat naka lañuy ñuy yaroo xam-xam boo mën a amit boo commencé waatee ci moom boo ko dégloo rek dangay ngay commencé waat di dal baax kon wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax baax yàlla mi nga xam ne moo ñu xamale ak moom yàlla mi nga xam ne moo ñu boole ak moom ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax di dolliwaat di ko ñaanal bu baax di dolliwaat di ko ñaanal tamit yàlla le ko magam ji mu bokk toogal yàlla na leen yàlla sun borom jubale yàlla na yàlla sun borom dëppale seeni mbir te dolli seeni wërsëg bépp soppe wëdd xaadal foo mën a nekk ñoo ngi lay ñaan nga ñaanal lal ñu alaaji Mara si mii ñoo ngi lay ñaan ci kartunu yàlla nga ñaanal la ñu ko yàlla fiq fanam yàlla guddal aw fanam te wéral ay cëram ndax bu aw fanam guddee te ay cëram wér ragal nañu wax dëgg yàlla lu bare bare bare bare bare bare dina ko sensé ci réew mi waaw lu bare bare dina ko sensé ci réew mi kon nañ ko ñaanal yàlla na ko yàlla guddalu fanam mhm. te wéral ay cëram mhm. yàlla na yàlla guddal fanam te wér ay cëram man nag wax dëgg yàlla sant naa ko bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ndax lii moom mbëggeel munu koo paase mm-hmm. mbëggeel mënut a paase lii mm-hmm. ku la woo ne la kan dem nga jariñu mbëggeel munu koo paase ndax tey rojo bi mu ma ma sama kàddu ni fu rojo bi àgg tey sama kàddu àgg fa ginnaaw yàlla yonent bi moom la kon ñoo ngi ko koy sante bu baax di ko sante tamit directeur rojo bi eh, bu baax a baax a baax waaw ah, moom itam di ko ñaanal yàlla wéral ko te guddalu fanam yàlla na ko yàlla wéral te guddalu fanam bépp auditeur daal ak bépp auditrice boo xamante ne si yaa ngi déglu mm-hmm. ñoo ngi lay wax ni la numéro yi ñu joxe nii léegi daal foo mën a nekk ci biir réew mi mm-hmm. insha allahu rabbi boo ci jokkoo ñun mm-hmm. ak cérémonie boo mën a am bu mën a doon boo ci jokkoo ñun rek wax ñu insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla dinañ fa teew Mm-hmm. incha allahu rabbi defal la ko na nga ko bëggee ci carton yàlla incha allahu rabbi mm-hmm. Mm-hmm. waaw suñ portable amul benn heure boo xamante ni si dina fay Mm-hmm. heure boo ñu wooyee rek di nga ñu jot incha allahu rabbi mm-hmm. heure bu mën a doon boo ñu wooyee rek incha allahu rabbi mm-hmm. di nga ñu jot ci kartanu yàlla waaw ah, yëf yi nag lenn loo xamante ni si diis na wala jafeel nañ ko amu lu mu ci mën a doon nu sa poos toll rek incha allahu rabbi dinañ la defal nanga ko bëggee ak nu sa poos mën a toll rek dinañ la defal nanga ko bëggee incha allahu rabbi ah, waaw ak nu sa poos mën a toll nag waaw ak nu sa poos mën a toll neel daal lii laa bëgg incha allahu rabbi ñu defalal la ko na ko bëgg ci kartunu yàlla. macha allah waaw loolu daal. Mm-hmm. incha allah moom lañ doon jotal mbokk auditeurs yi ak mm-hmm. auditrices yi waaw mm-hmm. ah, di leen xamal ni tamit dëkkuwaay baa ngi ci wetu daara ji rek géejawaay lii Limaamu Laay ba tey foofu la studio bi nekkee studio Wadduha oh, studio Wadduha foofu la nekkee eh, yàlla yàlla barkeel amiin yaa rabbal aalamiin yàlla yokk fa barkeel amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf sëñ Modou sant nañ ñëpp nag wax dëgg yàlla koñ ban dëkk tamit sant nañ ñëpp wax dëgg yàlla waaw ah, sant nañ ñëpp daal mënuñoo lim ndax ña fa nekk ñëpp suñuy kóllëre lañu suñuy nit lañu ndax ñoom ñëpp am nañu yëg ci ñun. Mhm. am nañ ite ci ñun. jërëjëf koo ci xam ni rek am nga soxla ci ñun wax dëgg yàlla da ngay ñëw wooñu mhm. kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wax dëgg yàlla. jërëjëf waaw kon Mara Cissé yal na yàlla guddal fan wi. te wéral cër yi. yal na yàlla guddal fan wi te wéral cër yi. bi jaay ni bu saa sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin amiin jërëjëf sëñ Modou Fall bu studio Wadduha sëñ Babacar xam naa nu bàyyal la rek ay cinq minutes bala noo tàggatoo waaw jërëjëf Serigne Serigne Mara xam li ñuy wax rek kàddu yu tàggatoo lay doon. Mm-hmm. di gërëm Serigne Moudou Fall mi nga xam ni ci kàddoom yu rafet yi. Mm-hmm. macha allah jotal na lépp. Mm-hmm. di rafetlu itam auditeurs yi ak auditeurs yi nga xam ne woote nañ fi. seede bi nga xam ne seede nañ ko. li nga xam ne moom la Serigne Moudou wax rek. ci mbaax gi ak laabir geeg teg nit ci yoon. Mm-hmm. loo kàccoore kàccoore boo taxawee ci buntu kër ga rek. Mm-hmm. da nga daal di yaraat sa bopp te mm-hmm. kenn du la wax ne lii la. soo duggee ci buntu kër gi. danga xam fii lan moo fi nekk. noo mën a mel rek danga danga da nga wu bu baax. xoolaat sa bopp. soo fa génnee danga am beneen yoon boo tegu. kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. waaw di jaajëfal ñëpp. di fàttali mbokk yi rek. Mm-hmm. ne comme li ñu baaxee ci mm-hmm. wàllu borom bopp yi képp ku ko soxla boo woote mm-hmm. ci 77 358. noo koy fajee moom day téere lay doon wala looy naan wala looy suuro. waaw du du nekk téere. du nekk looy looy naan. macha allah dañ koy defar li nga xam ne danga koy suuroo. <laughs> waaw soo koy suuroo tamit. comme ni nga xam ne bi noonu la nekkee ci yow mm-hmm. dafay wàcc comme ni laalo mbéb di di génne mm-hmm. noonu la nga koy sottee ba mu arrêté mu leer la ne loolu moom nekkatul mm-hmm. waaw incha allah li ñuy wax weddi gis bokk ci wallaay waaw képp ku fa jaar moom xam nga li ñuy wax lan la waaw su dee ci wàllu tànk buy métti ka noonu la su dee ci wàllu xale yi ñu waxit noonu la fay laalaam bi wallaahi wallaahi wallaahi kon loolu la ñuy jo jox mbokk yi mm-hmm. di tàggatoog ñoom di leen wax mm-hmm. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mm-hmm. ku ittewoo yooyu nga wax ban jokkuwaay la lay woowee ñu ngay woowee ci lycée Limamoulaye ban numéro 358 87 92 gannaaw ba mu defee 77 waaw baax na mhm. sëñ Babacar yal na yàlla barkeel allahumma amiin Mouhamed Fall yal na yàlla barkeel yàlla barab ba yokk fay xéwal tey dama ne woon émission ndokkalante la ñuy def rek ndax mhm. ay semaines yu bëree ngi nii mhm. émission direct amul woon ma ne woon dina ndokkalante ak euh, wëllëre yeeg soppe yi dëgg nanu taamu di leen koy defal weer bu nekk wallaahi macha allah lim boo xam ne day am lu nu wëllëranteel tay ñi yàlla def nu woote. Mhm. si kàttanu yàlla suñu jokku ëllëg. Mhm. Eh, ku si woote rek du ñàkk danañ seet loo xam ne dina gën si yow nu mën ko wëllërante. incha allah lépp si barke lépp si barke eh, Wadduha tabaaraka laa mhm. di ñaan yàlla ni nu ko defee. Eh,

sëñ Sidibé bi nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool mhm. di sant ñi nga xam ne noo fi nekk mhm. di def ay émission yu mel ni kii yii nuy def mhm. euh, dañu si jiital Cheikh Ahmed Tidiane Niang di sunu wëllëre fa di sunu mag di nu koy rey si lu bëree bëri tamit si dëggu gi macha allah si tawxiit bi yooyu yëpp bokk naa si ay auditeurs am yoo xam ne mën naa ne depuis 2003 ba léegi si fa tabaarakala néew na lu lu muy wax te duma koy teewlu. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara. di nuyu bu baax tamit fa tabaarakala eh, mbokk mi fi nekk dimanche fa tabaarakala sëñ Tafsir Thiam. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal. Eh, di fàttali ñëpp comme ni ko Mouhamadou Mountakha waxee ne boutique Wadduha. Mm-hmm. si mbaaxu yàlla yàlla def na eh, mu am ay gan. gan yi mooy produit yu bees yoo xam ne si mbaaxu yàlla. ak ndimbalu kilifa gu baax eh, moo ko fa bàyyi. Mm-hmm. comme nu fa sëriñ Moustapha Diouf bàyyee Mourake Touba dañu mm-hmm. ñu bëree bëree di si barkelu mm-hmm. gis ay xéwal tamit mu bàyyi fa ay produits yoo xam ne pour hémorroïde la. ndax yàgg naa di wax ne ñun la ñu yàlla jagleel. nu am lu nu sa doon it am lu nu jagleel. mooy alxuraanul karim. loola la xam. waaye it fa tabarakallah lu si nekk xam ngaa gën réere gi te xam-xam dafa yàttu sunguf ak xas reen yàgg fi lool it man lu bëree bëri fa tabarakallah doon mbokk moo xam ne ku si yàlla may la bàyyi na fa ay produits yoo xam ne yu am am am solo la lu muy dox si lu mel ni hémorroïde si lu mel ni hémorroïde muy dox tamit si ndoxu siti waaye muy dox tamit si koo xam ne bëgg na yàlla yokkal ko kattan. dem na ba si prostate comme ni ko mahamadou Moutakha waxee. dem na ba si ñi nga xam ne seen ndox day faral di néew seen ndoxu sëy yooyu yëpp fa tabarakalaa daf say dox. xam naa képp koo xam ne boutique dina ko ko gën a leeralal. fa tabarakalaa du ñàkk du yàgg dara da ngeen ko mën a am tamit Tëngéej. waaye da ngeen ko mën a am it euh, Kër Massar. da ngeen ko mën a am it Point 1 fa tabarakalaa yooyu ay. xéewal la yoo xam ne dafa yokk woon si boutique bi. Mhm. noo leen ko doon fàttali. Mhm. Euh, si kàttanu yàlla képp ko dem si boutique bi rek di nga ko mën a di nga ko fa mën a am. Mhm. ndax yàlla def na mu jàppandi fa fi nu toll. fàttali leen numéro boutique bu Wadduha. 76 la 310 95 60. comme na ngeen ko déggee si annonce boobu cuuraayu seytaane yi kiis yi. toj liggéey bayre yooyu yëpp fa tabarakallah euh, euh, ma nga fa. Mhm. nekk noonu gàllaaju njaboot. Mhm. Euh, cuuraay offertir yooyu yëpp fa tabarakallah yu nu ba pare nga xam ne soo fa demee rek di nga koy mën a am. Mhm. gàllaaju kër yooyu yëpp ak gàllaaju jigéen ju wérul. ak yi nga xam ne bii xaj na fàtte limunu ko. mais képp ku jaar si wadduha point org. www point wadduha point org. bépp information boo fa bëgg xam da nga ko fa fekk. fatabarakala ku dem si boutique bi yooyu yëpp fa. Mhm. niki nonu mhm. point un. Mhm. ku fa demit da nga mën am yooyu yëpp nu wax si 70, dix. ngay jaar neuf cent vingt deux vingt trois soixante quinze. soixante dix su Massar su si sunu jigéen Aja Aram. Eh, fatabarakala ak eh, Mohamed Job, nga xam mengisi mu ngi si route nationale bi si rond point route nationale bi station sel bi boo fa taxawee rek da nga gis boutique am boutique Wadduha bi nekk Tëngéej. Mm. wala nga woote si 77. 262. 36 28. 77 262 36 28 mooy mm-hmm. Mohamed Diop. Mm-hmm. su dee Kër Massar euh, soxna Diarra Mbodj boo jaaree si 77. 733 97 20 soo fa jaaree da nga ko mën a jot. su dee Mbour fa tabarkala sunu jokkoo rek dinaa la jox numéro soxna Kumbaka. Mm-hmm. dina la jox numéro nga xam ne mënu nekkal Mbour Saly Carrefour. Mm-hmm. fa laa yooyu mooy numéro boutique gu mm-hmm. di fàttali ñëpp ne dëkkuwaay bi buntu lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay. Mm-hmm. boo fa wàccee rek da nga jàkkaarloog boutique bi. soo demee si boutique bi dana la woon dëkkuwaay bi boutique bi ak buntu lycée bi noo def en face. buntu bi nga xam ne moo dend ak tali bi soo wàccee rek da jàkkaarloo ak boutique Wadduha soo demee si boutique bi dana la woon dëkkuwaay bi lu dul bésu aljuma si kàttanu yàlla incha allah ku fa ñëw si kàttanu borom bi. yàlla mën na yombal gisee bi. nañu yàgg di koy waxee rek. nu ñaan képp ku fa ñëw yàlla jiitu la fa. ba doo fa gis lu sa yaakaar tase si kattanam. mais ku loolu lu doon fàttali la. numéro Wadduha mooy numéro bi nga xam ne moom ngay jotee Mara mooy 77 617 70 44. fa la ku fa jaar rek danañ jokkoo direct mbokk yi ni tey di sëñ Babacar Cissé di sunu mag fa la waay juram ak sama waay jur bokk nday ak baay tey ñoom ñëpp na nga bar sàq nu nga ñaan yàlla beesal seen yërmande fa la di ñaan yàlla nu yàgg fi lool di leen di ñaanal moom lañ fi doon wettali konteeg tey comme noonu ma ko waxee nee na danay yëngu si borom bopp dinay yëngatu tamit si tànk yuy metti dinay yëngatu si xele bu doxul numéro ba ngeen ko mën a wooyee nee na 77 la 358 87 92 358 87 92 nu wettali kontu fiit ak mbokk boo xam ne wëllëre la wëllëre la fa tabarakalaa bu yàgg sax muy Mouhamad muy Modou mm-hmm. moom fa yëngatoom doon si photo ak caméra mm-hmm. moo ubbi studio tuddee ko Wadduha mm-hmm. fa tabaarakallaa loolu di kollëre ñu ñaan yàlla defal ko fa barke Duha comme noonu ma ko waxee nga koo ko ittewoo rek mën a mm-hmm. jokkoo ak moom si 77 658 28 51 77 658 28 51 mooy numéro yi nga xam ne moom ngeen mën a jotee ma moo sëñ Modou fa tabarakallah képp kuy tëwoo yu demee ni ki photo wala mhm. caméra mhm. événement bu mën a doon comme mhm. noonu ma ko waxee ne disponible na ak heure bu mën a doon ak fu mën a doonee di ñaan yàlla yokkal ko si barabam boobu barkeek xéewal yu yaatu macha allah di <coughs> sant bu baax ñi nga xam ne noonu nekk kër gi te nuy jàppale si liggéey bi comme ni ma ko waxee woon si tàmbali bi di eh, Omar Diallo ak Malick Sock bàjjan Mm-hmm. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ñaanal yàlla yokkale ni xéewal nekki noonu yaayu Mouhamed nga xam ne moo nekk si boutique bi moom it mm-hmm. ñu koy ñaanal fa tabarak la allah eh, sëñ Malick eh, am na mbokk bu fi laajoon Mouhamed ak Ahmed pour nu fàttali ko bu nekk trente la lu baax la si luy raxas xol comme noonu nu ko waxee woon ne xol bu setee rek lépp jag mm-hmm. te baraana lu ni di def si safaan xol bu tilim moo ko ko yóbbee kon ni yére di tilimee yaram di tilimee kasa xol yi doon lañ koy war di fóote yenn saa yi si ñaawteef mhm. ba xol gu booba leer ak imaan ak ihsaan rek nekk sa mhm. nee na dinay baax lool nag xel bi nga xam ne danga bëgg mu jub mhm. nga bind Muhammad rasulullah trent cinq bind Ahmad rasulullah trent cinq soo paree def ko ndox bu bëri mu di koy naan fa tabarakalaa di naan di wax ne nan di naandal xale yi bu baax si alxuraan. Mhm. nan di nu si naan ba ñaq. Mhm. ndax léegi boo dee seet jamono seyaatin yi bëri na. Mhm. ba amaana sooy lekk di lekkandoog ñoom. sooy naan di naanandoog ñoom. boo tëddee tëddandoog ñoom. fa tabarakalaa yooyu yëpp nag ngir di say mucc. ba dunu la taq si biir ak bitti. duna la dugg fenn. te say baax ngay man nandal sa yaram. si leeru. alquran mm-hmm. wala leeru turu yàlla mm-hmm. mooy tax day baax lool ordonnance yi nu si boole alquran mm-hmm. boole ko si waaye di si koy jëfandikoo bu baax a baax a baax ba nga xam ne yàpp baag yax baag dara ji lépp fa tabarak la leeru alquran daf say nekk kon ahmad rasulullah mahamad rasulullah bu nekk 35 la koy def def ko ndox bu bëri ak sam-sam di koy naan ihdina siraatal mustaqiim yàgg naa koy wax ku bëgg nja sa njaboot do nekk tànneef doon ku jub Hmm. soo bindee fatiha ba si mustaxim nga baamu limu turam si mustaxim hmm. nu mu tudd rek nga jéem a xam chiffre turam nga baamu ko si mustaxim hmm. soo paree nga àggale fatiha def ko ndox bu bëri mu di koy naan si kattanu yàlla doo gis si moom safaan te mooy dana doon koo xam ne kuy jub lay doon te def naa loolu jar na lu bëri jar na lu bëri si eh, nan koy waxee ne nan di teel a préparé xale yi ndax nooy bànneexu ëllëg ak mbégte ëllëg. Mhm. Eh, mooy ka nga xam ne yàlla may na ko njaboot. Mhm. mu fexe ba njabootam tege si siraatul mustaqim. Mhm. dundandoo ga njariñ lay doon. te su ko fi bàyyee tamit fa tabaraka laa njariñ la du dakk ndax fu mu jullee rek yónnee koy xaddiya na ma ko daan toppatoo si dundam bu làqooy noonu la koy toppatoo ndax du xëy ba jant sa mukk te yónnee wu ko. ndekki ak añ ak mooy bu jullee fajar yónnee koy ñaan. bu jullee tisbaar yónnee koy ñaan mm-hmm. su jullee tàkkusaan jox ko njoganalam bu mm-hmm. jullee timis jox ko reeram fa tabarakallah mm-hmm. loolu jar na lu bëree bëree bëri kon nu ngi ñaan képp ku si yàlla may njaboot lépp loo man rek si mu jub nekk tànneef %e nekk saalix nga gën see góorgóorlu sa kéem kéem kéem kattan te xam ne loolu ba bénéfice su àddina ba sa gën a rëy mhm. loolu bokk na si fa tabarakallah te ñaar yooyu ma wax yoon yu am am solo la mhm. si ki nga xam ne dafa bëgg lum njabootam di jub ma mhm. waxoon fi ma fàttale fii eh, alal masrah yi ma waxoon ak xobu poftan yi ngir ku xam ne dafa bëgg yàlla eh, dindil ko kumute dinaa di wax ne alam nasrah boo seetee am na Euh, suratul waqiha am na kaamil yoo xam ne quatre-vingt-seize aaya lañ ko def mm-hmm. waaye am na si yoo xam ne quatre-vingt-dix-neuf aaya la ko def mm-hmm. su mënee am boobu nag day ut quatre-vingt-dix-neuf xobu poftan mm-hmm. bu si nekk mu bind si alam nasrah su paree xob yooyu daf koy wo weer ba mu nekk sunguf ba mu wow mu fexe mu nekk sunguf sunguf boobu fa tabaarakalaa lu ku ko jëfandikoo rek si kàttanu yàlla yàlla dina la dimbale nga tàggoo kumute waaye la see gënin nga bindaale ñetti sóoratul waaqixa soo bindee sóoratul waaqixa def ko saafara tibb sunguf ba def si li koy sangoo dalay fa faxasal kumute si kàttanu yàlla ak barke waaqixa yoon bu ama am solo la yoon bu rëy a la si dindi kumute mu ak nañ si catu waxtu bi. Mhm. fi tabaarakallaa loo si safaanu rek nu ngi koy jéggalu. Mhm. di sant bu baax. Mhm. tey gërëm ñi nga xam ne noonu fi doon wettali. di sëñ Babacar Cissé. ak sëñ Modou Fall. di leen ñaanal yàlla yokkal leen i xéwal. di wax ne incha allah ndaje yi du géej bu neex yàlla. ndax fii daara la. te ñun mën fi wettali kon. di sant bu baax tamit sëñ Malick mi nga xam ne moom lan jàkkaar lool mu mhm. nekkaloon na si technique bi lépp lu jëf si kàddu yi nu koy sant yàlla jëla jëlaaluhu li si mhm. safaanu nu ngi koy leen koy jéggalu mhm. loolu nekkoon seen émission wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulilahi rabil alamin yónneen yéen a bëgg yónneen Mustafa moo mat a xam